Salam alaikum wa rahmatullah. Salam à tout le monde. Bahdoum jibilah min shaitan rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. J'espère que ni bien ci jamm dal len ni ci len ci jamm ñu mëna waxtane bu ngeen gisee description bi sujet boobu ñu def foofu ci kaw nga xam ne dañuy wax ci li nga xam ne mooy euh, l'éducation et comprendre le développement de l'enfant waa comprendre développement neuronal des enfants mu nekk lu am solo ndax éducation tey moom euh, nee naa ko éducation tey savoir la waa xam-xam la te ginnaaw xam-xam la nag war nañu def lépp lu ñu mën ngir fexe euh, dimbali suñu njaboot gi ngir ñu tegu ci euh, yar boo xamante ni dina leen jëriñ te it duñu màgg di rëccu walla di regretter yar bi ñu leen jox ndax yar moom tey ku ne xam nañ dafa jafe ndax euh, ñëpp a ngi yuuxu ci éducation bi mais parents yi tey dañu war a xam ni euh, àddina bi dafa évoluer société yi dafa évoluer culture dafa évoluer kon dara mënatul demee dara mënatul nekk comme ni nga xamante ni moom moo nekkoon y vingt 20 ans wala yaa a 30 ans wala y a ans mën nañ ni ñun suñu époque wala suñu époque ay waajur tey mënuñu ci jël di ci référé wu di ci éduquer suñu ay doom parce Euh, on dirait que dañu am tamit benn difficulté pour accepter que les temps ont changé l'acceptation des fois dafay nekk loo xamante ni dafay jafe kon euh, gars yi connecté wu leen képp koo xam ni yaay nga waajur nga wala ku bëgg a doon yaay wala papa mu leer la yow bëgg nga euh, tegu xëy na ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu procréer yoonu sëy am doom xamal ni bul ne rek aw ma doom thème bi concerné wu ma wala aw ah, man samay doom màgg nañu thème bi concerné wu ma déedéet yow mi yaroon ba pare ba say doom sëyi sax ba am ay sët yow thème bi concerné naa ndax di nga mën a gis erreur yu bëri yi nga def ci sa éducation ki nga xam ne aussi waaleykum salaam wa rahmatullah Ibrahima Faye ak Salimata Ba ñu ngi leen di nuyu di leen ziare dina wax ngeen dal ak jàmm ngeen partager live bi ngeen aimé ko parce que dina tax tey ndax dañuy jàmbat éducation te dañuy wax ni société de demain Euh, suñu ndaw tey ñooy ñooy modèlu société bi ñu nar am suba te tey ginnaaw ñëpp ñu ngi jàmbat ci ci ne yaa ngi euh, wax ni éducation bi xale yi tey yaruwuñu xale yi tey yaruwuñu donc il faut que ñu xool ak qui la faute pour mën a rectifier parce que damay wax ni jàmbat bi c'est très facile mais est-ce que def nañu les causes pour mën a réorganiser suñu éducation njaboot gi pour mën a rectifier erreur yi ñu def pour mën a aussi ut ay résultats yoo xam ni dina barkeel ba népp lu nga xamante ni ñu ngi koy yaree suñu njaboot gi ëllëg ak ci biir ñu xam ni ñun kat def nañu lu ñu mën def nañu lu ñu war. parce que société bi ci biti du dara lu man ak yéen ak keneen ak keneen ñooy société ci ndax ku nekk tey euh, da ngay gis la plupart si ñi dañuy faral di wax ne yar naa samay doom ñu màgg mbedd mi yàq. ma ni loolu c'est un peu trop facile même parce que tey buñ ne yar naa samay doom mbedd mi yàq na rek day xaw a doy waar parce que. mbedd mi doom yi ñu fay dem samay doom lañu say doom lañu doomu keneen ak keneen ñoom ñooy dem composé mbedd mi kon mbedd mi du nit mbedd mi ñun ñoo koy ay Aïssatou Diallo ñu ngi la aleykum salaam wa rahmatullah ah man tamit estimé naa leen bu baax a baax macha allah ndax comme niñ koy waxee rek yéen suñu communité yéen ñuy soutenir yéen ñuy dooleel ndax bu doon ñun kase daanaka du dem waaye partage yi ngeen di partager aimé yi ngeen di aimé ngeen koy xeeb parce que vidéo noo koy gën a aimé gën ko partager référencement bi gën a dëgër tey même bu demoon ba vidéo bi par exemple Facebook bëgg ko éliminer du ko mën a éliminer parce que tax mooy référencement bi dafa dëgër et vu que dafa dëgër ndax aimé yi ndax euh, partage yi ndax commentaire yi loolu day tax vidéo bi dafay am garantie kon bu ñu leen di wax aimé leen partager leen c'est parce que pour ngeen soutenir liggéey bi pour aussi euh, mu mën a yaatu ku nekk mën ci gis boppam ndaxte dañu wax ne éducation nekk na loo xamante ni dafa fondamental ci dundu doomu aadama ndax euh, yonent bi sallallahu dafa ne woon euh, amul héritage maanaam ndono bu gën a mag bu nit di bàyyil njabootam bu dul éducation éducation nag definition bi day yaatu lool ndax ku ne xam na ni nit ñi bokkuñu ginnaaw bokkuñu définition bi ñuy am ci kàddu yi bokkul kon ku nekk war nga définir lan mooy éducation éducation fan lay commencer fan la yem ku ne xam na ni comme ni ñu koy faral di waxee éducation mu ngi commencer bi ngay choisir ki ngay partager ndax yaa xam góor nga yaa xam jigéen nga ki ngay partager sa vie bi nga ko choisir rek ci nga war a xam ni dina impact si éducation parce que vous êtes deux vu que ñaar ngeen yaay moom mooy jàngal doom bi naka lañuy ñuy euh, naka la ñuy nekkee être boo xam ni yow tu dois t'aimer l'affection la bonté le partage gentillesse yaay mooy adopté ci doomam papa di jàngal responsabilité rationalité indépendance euh, organisation toutes ces choses là parce que ku ne xam na ni kër dafa séparé kon éducation ñaari figure yëpp dañ ci am solo muy papa muy yaay tey nag tey nag ma wax ko rek te dund góor ñi may leen ma seen nopp yi te partage leen thème bi ku am sa frère ku am sa càmmiñ ku am sa mag bu góor ku am euh, koo xamante ni leer na la ni kii kat góor la yar concerné na ko sànni leen ko vidéo parce que tey góor ñi dafa mel ni dañu daw euh, éducation bi la plus plupart si ñoom duma généraliser mais la plupart si ñoom dañu daw éducation bi soi-disant que yaay mooy yar waaw yaay figure bu fondamentale la bu indispensable si yaru xale mais papa tamit figure bu fondamentale bu indispensable si yaru parce que tey papa mooy jàngal doomam bu jigéen Euh, nan la ñu nekkee jëkkër nan la ñu nekkee papa nan la ñu nekkee euh, koo xamante ni macha allah nit bu responsable ngay doon nan la ñu nekkee société bi en tant que leader. mais yaay moom mooy jàngal doomam aussi lépp li nga xam ne moo concerné euh, foyer conjugal li concerné maternage li concerné organisation li concerné joxe affection li concerné générosité loolu yëpp yaay moom moo koy jàngal doomam. kon muy papa muy yaay ku ne da nga am rôle boo war a jouer kon bu kenn dawee bàyyi ka ca des. kon loolu warul bett kenn bu éducation société bi yàqoo bu say doom yàqoo parce que bis bi nga xamante ni tey war nga def li sa li nga war a def la nga daw daw yi nag bëri na façon am na ñoo xam ne seen daw mooy aw ma joton am ñoo xam ne seen daw mooy kalu seen néeg nekk seen téléphone am na ñoo xam ne seen daw res mooy damay liggéey tout le temps donc ceci dit que yow même bu dee am nga peu de temps bi nga am ci semaine bi en tant que père nga def nga jox ko temps qualité avec tes enfants parce que xale soxlawul tout le temps sa présence xale li mu soxla mooy temps bi nga koy jox na am qualité nga ba nga xam ne boo fi nekkul danga nga koy impacté dalay fàttaliku daf lay gis kon ñu wax ni ñaari conjoints yi yéen bu ngeen xasee ba tànnante ba sëy na fekk ni tey en tant que góor jigéen bi nga tànn ñaan nga yàlla say doom nuru ko yow tamit en tant que jigéen na fekk ni góor bi nga tànn ñaan nga yàlla say doom nuru ko parce que la plupart tey ci jigéen ñi day dégg ku la naan ñaanuma yàlla <laughs> sama doom nuru papaam <laughs> wala nga dégg ci góor ñi ñaanuma yàlla sama doom nuru yaayam xam nga kon foofu déjà incohérence totale parce que balaa daal di xew comportement c'est génétique ah ñu ñëpp xam nañ ñi les gènes gènes yi composé suñu ADN eh, comportement bi da koy topp tey par exemple nit ki bu fekkente ni eh, dafa bokk ci famille bu am colère tey ADN bi day indaale ay informations yu relatives à la colère kon ceci dit que personne boobu c'est une personne facilement tendée vers la colère léegi bu fekkente ne tey jukko dañ koy doon parce que suñu ADN yi ñuy recevoir dafay ñëw déjà ak ces informations là yow nga tànn dem tànn tey yaa xam jabar bi nga tànn famille bu dee dañuy fen yow ne nga bëgg kuy fen wala bu dee dañuy sàcc bu dee dañuy curiandi wala bu dee dañuy tappale wala bu dee amuñu diine wala ay nit lañ donc tous ces jeunes yi nga xam ne ñun bugguñu ko doomu aadama bi kon balaa ngay tànn na nga nekk détective privé nee naa sëy <laughs> sëy moo gën a nee naa sëy ni armée di tànnee ñi ñi occupé fonctionnalité armée ci réew nit ki ngay góor ngay jigéen noonu nga war a tànnee kan ngay partager sa vie génération future bi nga xamante ni ñoom ngay créer kan mooy ki nga xamante ni ñoom ngay euh, moom ngay partager sa dund euh, mbokk yi aimé leen kër yi def leen kër yi def leen kër yi waaw bu ko defee ngeen partager ñu mën a waxtaan waxtaan bi comme il se doit donc nit ki euh, il faut que ñu comprendre parce que tey bëgguma duggu ci détails yi trop ku bëgg tey comprendre euh, soxna si keroog bi nga xamante ni ëmb na déjà ni muy préparer li nga xamante ni mooy euh, boppam pour du jur doom boo xam ne doom bu équilibré la loolu mun nañ dem ci sama vidéo bi nga xamante ni moom laa def la psychologie de la grossesse bu ko defee cours la cours la bu gratuite boo xam ne mu ngi ci sama YouTube mu ngi sama Facebook pour comprendre la psychologie de la grossesse de la femme parce que une fois que jigéen bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaare une fois que jigéen bi war na lor dañuy gis ni ay hormonam ak gènes yi lépp li nga xamante ni moo concerné son état humeur état mentalam état affectif am lépp dafay affecté fœtus bi la développement de l'embryon li nga xamante ni tey mooy sa humeur yow jigéen bi say problème say souci lépp sa doom da koy dund ni nga koy dundee information yi nga xam ne mooy say émotion moom lay jot la même chose moom ngay transmettre li nga xamante ni mooy sa doom kon il faut faire très attention moo tax tout le temps ñuy wax ni nit ki booy ëmb na nga ëmb ci moment yu propice parce que tey boo tëbee tëb rek ëmb ci moment yoo xam ne c'est très très difficile très douloureux moment yoo xam ne sa nga am ci ëmb moment nekk moment yoo xam ne tey yenn yi nga xam ne tey mooy ni nga ëmbee loolu yëpp dafay affecté li nga xam ne mooy fœtus bi kon il faut faire très attention ci li nga xamante ni mooy kii bi donc mbokk yi partagé leen live bi mu mën a continuer comme leen ngeen daal di fexe aimé waaw aimé leen Salimata Ba ma ni kër yi kër yi nekk si live bi moom ngeen di tapoté moom ngeen di def j'aime maye kër yi waxuma waxuma commentaire yi donc partagé leen bu ko defee ñu mën a continuer waxtaan bi waxtaan ci comme il se doit n'est-ce pas waaw parce que loolu moom da dafay am solo ñu mën a comprendre développement du cerveau de l'enfant parce que xale bi une fois que mu ñëw ci àddina bi li ñu war a njëkk a comprendre mooy xale buy juddu dafa juddu te c'est un enfant incomplet maanaam développement wu cerveau wam c'est incomplet xale bi benn partie moo complet ci cerveau wam mooy partie bi nga xam moom la ñuy wax cerveau reptilien bi di cerveau bi nga xamante ni mooy cerveau primitif bi mooy ndong gi ndong cuukeel gi ci ginnaaw foofu rek la xale bi juddoo nga xam ni foofu mooy li nga xam ni mooy développé mooy mooy mooy jàngal xale bi bu ñëwee moo koy jàngal mu mën a euh, mu mën a naka laa ko mën expliquer xale bi mën di yëg danger mën di protéger mën di euh, joxe alerte au cas de besoin ceci dit que cerveau bi nga xam ni mooy jox nit ki réaction euh, réaction bu vif au cas de danger comme animaux yi ni ñu amee cette partie de cette cerveau là nga xamante ni bu ñu déggee danger seen sensoriel wala seen gis-gis wala si seen toucher seen yëg rek da gis ñu réagir ci saa si daw Aïcha Bio Bambara mu ne euh, je vous conseille de donner beaucoup à vos enfants un enfant a besoin d'amour surtout màgg delloo loo ay waajuram hmm, macha allah donc il ñu xam ni cerveau bi partie boobu mooy njëkk a fonctionner mooy partie bi nga xam ne tey sa doom bu gémmantoo day jooy parce que besoin la bu xiifee day jooy parce que besoin la euh, donc xale jooy lay gën a def ci premier mois de vie yi ñetti weeru njëkk xale jooy day jooy comme pas possible parce que non seulement moment boobu xale bi lépp lu koy alerter da ngay gis ni day fexe lépp lu lépp lu koy alerter day xale bi dafay fexe di jooy pour communiquer ak yéen bu xiifee day jooy pour communiquer ak yéen bu gémmantoo day jooy pour communiquer ak yéen bu soxlaa câlin dafay jooy pour communiquer ak yéen des fois loolu waral nga gis liir di jooy te fekk na amul dara maanaam jox nga ko mu lekk changé nga ko couche am jox nga ko lépp xale bi di jooy parce que xëy na gémmantu na mais bëggul nelaw il faut nga yëkkati ko daal di koy câliner teg ko ci sa kaw daal di koy materner tuuti nga gis mu nelaw parce que dafa am besoin de ce tactile là dafa soxla nga teg ko sa kaw dafa soxla nga raay ko dafa soxla nga fóon ko kon looloo war a tax tey ñu xam ne xale yi euh, besoin boobu ñuy laaj dafa nekk loo xam ne besoin vital lay doon besoin d'affection surtout li tax xale premier mois de vie yi dafay bëgg tout le temps nga di ko fopp parce que c'est là où il se sent Ah, c'est la où l'enfant se sent en sécurité mais bu fekkente ni tey xale bi dafay soxla nga fob ko ngay di jooy nga di ko ignorer wala naan jooy yi da koy màggloo euh, Fally Fall ñu ngi lay nuyu di la ziare mu ne macha allah je te suis depuis États-Unis ñu ngi nuyu waa USA yëpp di leen wax ngeen partager live bi ngeen daal di koy aimer donc euh, xale bi des fois day soxla besoin nga sécuriser ko. looloo waral xale bi des fois di jooy di jooy di jooy di jooy yow da ngay nax ba son doo comprendre la mu tax xale bi jooy xale buy jooy tamit alerte la ci xale bu stressé parce que liir bu normal warul weex li ñuy wax weex ñu tàmm ko ñun di ko dégg ba mu jëkk ko banaliser mu nekk quelque chose de naturel c'est naturel du tout liir dina jooy ci premier mois de vie mais liir il faut ñu xam ni li ñuy wax weex stress la parce que liir bu fekkee dafa juddwaale stress ndax bu dee da ko ëmbee stress ëmbee ko xol bu tàng ëmbee ko colère xale bi day juddu déjà ay gène am prédisposé wu ci li nga xamante ni mooy cortisol bi nga xam ne mooy déclencher facteur de stress bu ko defee xale bi nekk liir boo xam ne dafay stressé elle se sent angoissé tout le temps mu ngi jooy di jooy di jooy et loolu yëpp day nekk loo xamante ni xale bi doy naqari deret naqari de doo comprendre tax ngay nàmpal sa doom di stressé comme ni ma leen ko waxee suñu soow bi ñu nàmpal xale bi dafay am aussi suñu ADN ADN bi tamit dafay am ay ay information euh, comprendre xale bi nu muy juddoo cerveau am lu mu soxla ak ñun suñu attitude suñu comportement dina tax tey xale bi stressé dafa soxla sécurité dafa soxla nga dalal ko dafa soxla nga respecter ay besoins am ndax xale bi bu juddoo mënul wax ci jooy bi muy jooy ci lay communiqué ak yow pour wax la ni dafa bëgg ceci ou cela kon bul mës a ignorer sa doom bu fekkente ne dafa nekk un moment de d'angoisse di jooy wala di def ay crise parce que uniquement xale bi euh, dafa daf euh, elle se sent en danger beneen bi aussi ñu bàyyi xel que ni la plupart ci xale li ñuy wax de zéro jusqu'à de zéro jusqu'à trois ans xale bi moment boobu comme ni ñu ko waxee cerveau muy côté partie bi nekk ci parti frontale bi muy côté bi nga xamante ni euh, partie frontal bi ak partie bi nekk si ginnaaw donc xale bi à partir de zéro jusqu'à trois ans xale bi dafay nekk ci âge boo xam ne dafay développé wu comme ñu koy waxee xale yi judduwuñu ci li nga xamante ni mooy euh, juddu ci colère wala xale juddu ñu ne dafa bon wala ki dafa juddu rek bon wala ki dafa juddu rek dëgër boppal déedéet xale xamul luy bon xale xamul luy euh, soxor xale bu juddoo dafay judd ci nature sain ci fitra comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nee na képp ku judd da nga judd ci fitra fitra mooy lan mooy nature bi sain yow dara topp la du bàkkaar du dara moo tax nit bu ne man nii laa mel nii la ma yàlla bindee ma ni la bul accuser yàlla yàlla bindee wu la nii de bi ngay judd dara topp la ci bàkkaar da nga judd set wecc weex tàng kon lépp lu nekk si yow xamal ni sa yaay ak sa papa bi nga yaroo ñoo ko fa def donc boo gisee xale bi moment boobu gën a soxla tey euh, nga koy fob soxla am contact visuel soxla cette figure d'attachement muy la mère ndax figure d'attachement boobu mooy jox xale bi sécurité muy aussi le père parce que euh, papa daf fi nekk aussi pour accompagner équilibrer yaru xale bi mais ñu gis ni xale bi tey une fois que xale bi àggagul sax 6 ans dóor yi dafay bëri xas yi dafay bëri critique yi dafay bëri waajur yi amatuñu patience pour mun a euh, taxawu seen waajur yar euh, taxawu seen doom yi yar leen yar bu équilibré et ça je dis que c'est très dangereux même parce que xale bi dañu war a xam ni yar bi nga koy yar maternage moo ci ëpp solo la mooy maternage mooy xale dañ koy jàngal moom affection jàngal ko moom empathie jàngal ko mu mun a développer li nga xam ni tey mooy ay sensam en tant que être humain parce que bu fekkente ne xale bi ay sensam mooy li nga xamante ni tey dañ ko teel a yar te jàngaluñ ko empathie jàngaluñ ko affection jàngaluñ ko li nga xamante ni tey mooy euh, suñu yar lu ci ëpp euh, réprimande moo ci ëpp tere tere xale bi di ko tere te liñ koy tere duñu jéem a xool lan xale bi lan la soxla mois boobu xale bi dañ koy tere duñ ko expliquer parce que euh, ñun dañu jàpp ni surtout ñun africain dañu jàpp ni xale amul ay besoin xale sama doom lu ma bëgg noonu la loolu lay def sama doom lu ma bëgg loolu lay loolu lay mel donc comme te doom bi euh, objet la boo xam ne rek dafa war robot la dafa war di obéir obéir et que xale bi amul beneen droit problème bi gën a mag nag ci loolu mooy il faut ñu comprendre ni xale nit la balaa dara di xew xale ndénkaane yàlla la balaa dara di xew doom ji moomoo il faut nga définir doom mooy lan doom bi nga xam ne da ko sàkku yàlla may la ko ci sëy bu dagan lan mooy objectifu doom pour pëppalee la terre pour peupler la terre nag moo tax yàlla suñu borom daal di décider dénk la li nga xamante ni tey mooy les futurs êtres humains ngir nga mën leen a yar yar boo xam ne day ànd ak équilibre ànd ak amour ànd ak ñu am diine nekk ay doomu aadama yoo xamante ni tey fu ñu dem dina ñu mën a taxawal l'islam taxawaay bu rafet mais doom jooju il faut nga xam ne moomoo ko yàlla daf la ko dénk mbokk yi donc il faut que ñu xam ne le fait que xale bi euh, moment boobu yàlla dénk la ko pour mu nga mën ko yar jox ko éducation bu équilibré éducation bu sain dañu war a comprendre ni xale bi moomoo ko xale bi du sa moomee la preuve en est que xale bi une fois que mu màgg euh, autonome jàng soit muy jigéen sëy soit muy góor takk jabar taw utaa day génn si kër ndax kenn ñaanul yàlla dee si kër nekk si kër bàyyi kon loolu liñ ci euh, liñ ci mën a jàngal rek mooy kon gis nga ni doom ji moomoo ko parce que loo moom du mës sa jóge ci yow sa propriété du mës sa jóge ci yow kon la fait que euh, ñun yaay yi wala papa yi ñu am ñu am l'habitude waajur yi di wax naan sama doom nga li ma bëgg lool ngay def loolu damay wax ni yar la boo xam ne yaru dictature la yar boo xam ne tout le temps euh, autorité bi dañ koy jël teg ko ci kaw du ñu jéem a comprendre xale bi dafa am xel xale bi dafa am xol te gis nga xale bi tey boo ko yaree yar bu dur yar ko yar bu metti yar ko yar bu ànd ak violence non seulement di nga détruire auto estime am xale bi di nga yàq image am ci boppam xale bi dina màgg du nawlu boppam du bëgg boppam tout le temps day jàpp nit ñee ko gën nit ñee ko gën a xam nit ñee ko gën a intelligent tout le nekk xale boo xam tamit ni nga ko yaree noonu daal di koy ci humiliation ci ci violence tey mag yéen ñi nekk mag di ma suivre ñu yar leen ci violence la plupart ci yéen di ngeen ne man yar bi ñu ma yar du ma ko jox samay doom ba mu des benn benn yi nga xam ne ñoom dañoo déconnecté totalement da ngay dégg ñu naan waaw man nii ñi ma yaree moo tax ma mel nii mais dëgg la chaque personne a des mais boo xoolee ci beneen wet bi yow xëy na yaa ngi gis côté yoo xam si sa ci yow neexu la gis nga ci yow côté bu agressif neexu la gis nga ci yow côté bu violent neexu la gis nga ci yow côté boo xamante ni danga nga neexu la parce que da nga naan nit ñi du ñu gis sa sensibilité parce que tu ne te permets pas de montrer ton sensibilité lu tax ndax bi nga nekkee xale dañ la doon xamal ne la góor du jooy parce que góor dafa war a dur góor dafa war a lii góor dafa war a laa mayuñu la occasion xamal la ni nit nga doo doo doo doo doo doo doo rëboo te rëboo moo doon wane sentiment nit dafa am ay sentiment te dañ ko war a accepter sentiment yi kon la fait que tey nga dem ba nekk euh, mag nekk ak sa jabar mënoo ko war sa affection mënoo ko wan sa mbëggeel sa jabar di jàmbat fu nekk day wane ni rek éducation bi dafa raté ci lu bëri ndax dañuy euh, jël jigéen ñi yar leen wan leen ni jigéen moo war a bëgg moo war a toppatoo moo war a materne et que damay wax ni ni ñuy yaree góor ak jigéen ci côté affectif dara dara waru cee changé ni ñuy yaree jigéen wala góor ci côté affectif dara waru cee changé parce que dañuy jël tout le temps jigéen def comme si c'était jigéen bi moom rek moo war a joxe affection moo war a joxe mbëggeel moo war a euh, def tout son possible pour dab bànneexu jëkkëram mais dañuy fàtte ni góor bi nit la nit la ñuy préparer pour mu dem yor yeneen nit yor jabar ak ay doom dañuy fàtte xamal ko ni da war a am habitude di toppatoo sa jabar di toppatoo say doom di leen wan sa affection di leen wan sa humanité ñu mën la bëgg mais déedéet tellement que góor ñi dañ leen déconnecté ci société bi jox leen benn forme d'égoïsme boo xam ni ceci dit que dawal ginnaaw l'argent après boo amee argent nga takk jabar nga teg ko góor lekk bu weesoo loolu góor xamul jabar comment quoi ça sert jabar sa dañ leen di ci si kaw lal bi ak di leen servir ñuy lekk donc jabar égal dalay servir sa servante la mais côté relationnel côté affectif côté amour côté respect les femmes souffrent jigéen ñi dee nañu mais loolu est-ce que laajte nañu fan la jóge mais ci éducation bi la jóge bien sûr kon tey bu ñu bëggee changer li nga xamante ni mooy résultat yi mariage yi di joxe tey problème yi mariage yi di joxe tey donc nañu tourné suñu éducation nañ jël waat suñu éducation ñu changer relation bi nga xam ne tey moom la ñuy yaree suñu doom yi jigéen yi suñu doom yu góor ñu def leen benn xam ne ay nit lañu nañ leen yar même éducation tey bu ñu jàngalee jigéen bi dafa war a am sentiment dafa war a yërëm yaayam nañ ko jàngal góor bi bu ñu jàngalee jigéen bi dafa war a euh, correct dafa war a wax ndànk dafa war a dox ndànk nañ ko jàngal góor bi dafa war a correct dafa war a wax ndànk dafa war a dox ndànk dafa war a am éducation donc toutes ces choses là ñu jàngal jigéen bi waa toppatool sa sa mag bu ñëwee fóotal ko euh, defal ko néegam te magam bu góor am ay loxo lu tax moom euh, rakkam bu jigéen di ko toppatoo wala magam bu jigéen di ko toppatoo moom du toppatoo kenn moom il est tellement ñëpp ko war a toppatoo mais moom du toppatoo kenn kon ñun on a les hommes de maintenant dañ leen a ci modèle boo xam ne tey ça ne nous arrange pas kon il faut que ñu xam ne xale bi muy góor depuis mu nekk xale sa doom bu góor buy jooy dafa war a jooy bàyyi ko mu jooy parce que mu xam ne nit la ndax am na ci góor ñoo xam ne xam naa des fois làmb seen xol bi sax di jàkkaar ne est-ce que du xeer a fa nekk parce que mënuñu wane seen sentiment que ils sont parce que dañu jël sentiment ak émotion daal di ak faiblesse looloo waral des nga gis góor ñu bëri bu ñu nekkee dans le colère doo xàmme parce que ñoom seen jëm bopp ñu xàmme seen bopp ñoom seen jëm bopp dañuy bett seen bopp parce que émotion bu demee bu bëri nit ki day nekk en décharge te nit ki bu nekk en décharge émotionnelle c'est une personne boo xamante ni il a mal c'est une personne boo xamante ni il ne peut pas se contrôler te loolu lan moo koy waral parce que tey ñun ñoo jël euh, doomu aadama yooyu ñun ñoo jël góor ñooñu fàtte leen xamal ni ay nit lañu dañu war a wane seen sentiment kon éducation bu dure bi ça beaucoup détruit même jigéen des fois ñu yar ko éducation bu dure mu màgg am problème parce que tey xëy na ñàkkul ni Euh, waajur bi ko doon yar da ko yar ak dureté xamalu ko sentiment jigéen bi màgg man damay gis jigéen ñoo xam dañu ma naan Fatima même su ma bëggee defal samay doom câlin je n'arrive mën naa leen câliner mën naa leen jox affection jusqu'à ce que ñu am ay 3 ans leen jox câlin mënu ma leen jox bisou tout le temps même su ma bëggee du du ma ko mën parce que jàngal lu ñu leen tout simplement li nga xam ni mooy douceur ak affection jàng dureté rek lañ leen jàngal du coup pour ñun xale dañu ko war a wax muy def nga dégg nit naan sama doom dafa dëgër bopp je n'arrive pas à que mu déggal ma je n'arrive pas à que xale bi obéir ma xale il faut que ñu xam ni de zéro jusqu'à cinq ans xale bi dafa nekk ci âge boo xam ni il n'est pas encore con il conscient une personne boo xam ni dafa nekk dafa inconscient mooy xale bi il n'est pas conscient mënul rationaliser mënul xam lii moo baax ak lii moo bon du coup xale bi tey bu ñu gisee ni Euh, mais ñii ñu ngi saboté sama live bi de euh, jóg leen ci boog ngeen ngeen yónnee <laughs> ngeen partage aimé ngeen commentaire ana ñu nekk ci live bi wala live bi moom amul kenn man dong maay wax jeune ne vois pas les gens avec qui je vais interagir ah bu dee man rek maay wax boog ma mën a comprendre hmm? man rek may wax si vous avez des questions aussi mën ngeen ko poser par rapport ak seen éducation doom donc xale bi de zéro jusqu'à cinq ans xale bi dafa nekk ci âge boo xamante ni âge yu hypnose lañ koy woowee xale bi machine la buy enregistré du filtrer lu baax ak lu bon tey mën nga jàkkaarloo xale bi ne ko bul def lii bul def lii bu paree mu dem def ko parce que cerveau xale bi moment boobu du comprendre négation li ñu wax naan le cerveau de l'être humain d'habitude ne comprend pas la négation la preuve en est que suñu maam aadama bi ko yàlla bindee. wàcce ko ci àjjana moom ak suñu maam Hawa li ko yàlla njëkk wax mooy bul laal xam nga yàlla suñu borom dafa attiré attention ci garab gi xam nga yàlla mënoon na ko ne ah àjjana de fees na dell ay fruits donc mën nga ci lekk bu la neex yàlla bàyyi ko kon bu boobaa suñu maam Adama du musa laal garab gi mais yàlla suñu borom daf ko ne àjjana garab yi fi nekk yëpp am nga ci droit ba mu des exception gis nga bi mu ko nee ba mu des bii rek boobu moo captiver attention yow booy tere sa doom dara nga bëgg mu laal ko rek. wan ko li mu dul laal cinq minutes laa la may mu dem laal ko te bu koy laal du ko tey parce que suñu cerveau ni mu câblé woo doomu aadama à chaque fois nga tere ko quelque chose c'est comme si c'était yaay attirer attention vers cette chose lan moo tax tey les personnes sont plus attirées par les péchés lu tax tey góor di am jabaram ci këram dem di njaaloo parce que li nga xam ni mooy l'interdit moo gën a attiré doomu aadama que li nga xam ne mooy li permis kon interdit pour nit mun ci mucc il faut que mu domte boppam il faut que mu autodiscipliné wu il faut mu nekk une personne bien cadrée pour mu mën a euh, autodiscipliné boppam pour mun a xam ay limites mun ko respecté xeex ak nafsam mais bu fekkente ni tey doomu aadama bi yarul boppam rek day gis tout le temps elle est tendée vers les péchés moo tax tey topp diine jafe moo tax tey discipline sa bopp bañ a def bàkkaar jafe moo tax tey nekk ci yoon bi jub jafe bien vrai que yàlla suñu borom daf ñuy wax ni daf ñuy xamal ni duñu mës a parfait duñu mës a nekk ay être yoo xam ne tey duñu def bàkkaar mais nag bàkkaar yu mag yi c'est duñ na yu ndaw yu ndawaan yi tey boo def boo jàppee sa wala ko julli am na yoo xam ne yàlla suñu baal yàlla suñu borom dafa koy baal automatiquement kon ñu xam ni xale bi nga xam ne moom la ñuy yar de zéro jusqu'à cinq ans xale bi boo ko teree dara da koy def di ko defaat kon nañu am patience xale pour nga jàngal ko mu bañ a def dara da nga koy woo jàkkaarloog moom comme ni ma jàkkaarloog yow sans di ko menacer sans di ko chantage sans di ko xoqatal ak di ko xuuxal ndax ñun suñu yar yëpp ci peur la xale bi dañ koy menacer menacer menacer ba xale bi bu yàqee dara day tiit bu defee dara day jaaxle xale bi tout le temps mu ngi nekk en mode alerte parce que dañu yóbbu fitam dañu yóbbu xelam xale bi mënatul raisonner xale dañ ko war a yóbbu ci muy raisonner sur ses xale bu yàqee dara da koy woo xool ko ne ko mais lii nga yàq nii yaa ko tay wala tayoo ko bu la nee tayuma ko rek baal ko ndax tayu ko ndax doomu aadama la ndax ñun waajur yi moom on est tout le temps dans le jugement suñu doom yi bu ñu yàqee dara au lieu nga ñëw daal di koy ne euh, lii ngay kii bu ko defati wala tax nga def ko wala ñu laaj ko déedéet dañ naan moo ko tay jugé nga ko te xamoo intention te boobaa doo ko baal kon xale bu yàqee dara wala mu def dara tey tayu ko bu la ne tayu ma ko rek jeex na ne ko la prochaine fois il faut faire attention mu jeex mais lu tax duñu tolérant xale bi tey bu tojee kaas nga yóbbu fi tam bëgg koo dóor te yow yow boo tojee kaas da ngay dóor bopp te pourtant sax du euh, bu dee xale bi la nga ne ko non il n'a pas droit de toj kaas ñu teg ko fa xale bi tout le temps ñu ngi koy nekk dans l'interdit bul def lii bul def lii bul def lii et pourtant bul def lii duñ ko expliquer lu tax xale dafa soxla di réfléchir dafa soxla développer li nga xam آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته asalaamaaleykum waat waa mbokk yi waa nodd bi moom moo doon nodd ñu ngi jéggalu kon maa ngi yemoon ci ma xool am nañu fi posé question de Pape Pape Dia merci beaucoup Pape Dia Salimata Ba mu ne nan ngay joxe sa doom confiance en soi Salimata Euh, thème bi tey dañ ko consacrer pour ñu xam lan mooy l'éducation bienveillante bi nga xam ni dina jox sa doom non seulement confiance en soi jox ko mu xam euh, vrai valeur en tant que personne jox ko mu gëm boppam bëgg boppam am l'amour de soit bëgg la yow mii di waajur nekk xale bu am empathie xale bu am yërmande xale boo xamante ni dafay am développement bu sans sans aucun trouble ni aucun conséquence psychiatrique ndax tey ñu bëri seen yar yu metti ñu ngi ko seen ay yar seen ay problème psychiatrique seen ay problème euh, yu manque de confiance ñu ngi ko jëlee seen éducation kon tey thème bi mën naa ne sa réponse boo ma dégloo incha allah topp ma di nga am réponse yi nga xam ne moom nga soxla taaru jigéen macha allah euh, Montana Ndiaye mu ne euh, si tu fais ça ils vont dire que waaw Euh, Montana Ndiaye xam nga tubaab yi ñu tëb bàyyi dóore xam nga tubaab dañ daan dóore tubaab yi punition corporelle dañ ko daan def dañ doon dóore comme ñëpp ah. mais xam nga jamono dafay dox technologie dafay dox recherche médical yi dafay dox tey dem na ba nga xam ne psychiatrie yi dem nañu ba gis ni ndakate ci neurosciences affectives cognitives yi avec tous ces recherches yi nga xam ne dañ ko financer pour xool lan moo tax nit di màgg di nekk criminel lan moo tax nit di màgg di nekk agresseur lan moo tax nit di màgg di nekk pervers narcissique lan moo tax nit di màgg di cruel di agressif di bon di soxor di raye di di di dóor ay waajuram des fois des fois mu leen di saaga des fois nit ki nekk sàcc nekk bandi prison yi fees del tubaab yi bi ñu koy étudier lépp li nga xamante ni mooy résultat bi ñu gis mooy nit ñi def certains euh, crimes wala nit ñi am yenn jukko yu bon yi seen cerveau dañuy mën a gis ni à travers le scanner que ni dafa am seen partie cerveau yoo xam ne c'est pas bien câblé et ça c'est dû à l'enfance à l'éducation dure bi nga xam ni moom moo détruire cette partie de du cerveau xam nga suñu euh, partie préfrontale bi nga xam ne moom la ñuy wax cerveau bi nga xamante ni mooy cerveau bi nga xam ne moo ñuy moo ñuy dimbali ci rangement bi moo ñuy dimbali aussi ci li nga xam ne aussi mooy compréhension bi moo ñuy dimbali suñu apprentissage suñu parti bi nga xam ne mooy hémisphère droite bi nga xam ne foofu la ñuy amee gestion des émotions comprendre li nga xam ne mooy euh, nit ki kanamam buy wax bu fekkee dafa mer bu fekkee dafa frustré bu fekkee dafa crispé donc cette partie là bu fekkente ni dafa yàqu parti bi gérer empati mooy nit ki du mën a am yërmande looloo tax tey ngay gis ay góor ñoo xam ne ay pervers narcissique lañu dañuy am jabar dóor xas saaga dóor seeni doom gaañ leen trop violent même parce que violence boobu dafa nekk ci ñoom ndax ñoom mënuñu yëg tout simplement quand il fait mal léegi nit bi am problème boobu fan la ko jëlee xanaa ci éducation bi nga tubaab bi ñu demee ba gis ni ndakate problème yii di am ci seen société yëpp ci crime yu bari ci éducation bi la dañu ne ñett à la violence dañu ko reyee dañ ci teg ay punition ku dóorati ñu puni la parce que lu tax mooy conséquences yi nga xam ne moom la dóor di indi dafa drastique te yàq seen société donc foofu la ñu taxaw woote ay loi taxaw pour former aussi parents yi expliquer leen que ni am na ci loo xam ni xale bi boo ko ko tegee ci éducation mooy defaroo ko da nga koy yàq ñun dama ne la plupart éduqué wuñu mais dañuy détruire lan mooy détruire son enfant détruire son ton enfant c'est quand da koy saaga quand da nga koy xas xale bi tey boo màggee nga dégg ni yow loo def nga de toutes les façons dama réussir ndax sama yaay neen de toutes les façons damaa bon de toutes les façons dama dama nëx de toutes les façons dama dof de toutes xale bi lu la dal am na mag ñoo xam ne dañu dem day tey ba nekk mag lu ñu dugg mu échec ñu ne sama yaay nii la waxoon nee na man du ma mës a gëm-gëm la bu ñu ancré ci seen subconscient depuis ñu nekk xale lan moo tax parce que seen waajur xam nga kàddu waajur dafa mel ni livre kàddu waajur dafa mel ni livre livre bu ñu bind tamponné ko ci bopp doomam mooy lépp lu la sa waajur tey sa waajur bu la ne dangaa baax kàddu googu day neex ci yow te foo dem yóbbaale ko te du ko mës a fàtte sa waajur bu la ne nit ku maanaam nit ku généreux nga nit koo xamante ne jox la ay qualité qualité yooyu yow ku la mën a wax dangaa dangaa baax ci àddina du la saf mais bu la ko sa waajur waxee dafa am lu muy def ci yow ku la mën a wax dangaa bon ci sa àddina du la saf mais bu la ko sa waajur waxee daf la yàqal kon waajur figure la bu am importance kon bu ñu ne rek tubaab yi bu ñu dóorul dañuy mel ni tubaab yi parce que tubaab yi dañu xam dóor conséquence bi def ñun nag ba tey xamaguñu dóor conséquence bi def parce que dañoo tardé duñu dañoo tardé dañoo dellu ginnaaw société bi ñu am société bu doy waar boo xam ne ba tey ñu ngi jël éducation di jiiñ ñi xale yi yarootuñu mais xale yi bu ñu yarootuñu mooy mag ñee yarootul de mag ñi bu dee dañoo daw seen responsabilité mag bu dee bu ñuy yar dañuy dóor saaga sa doom mën nga ko yar tey booy saaga sa doom day saaga parce que lu tax mooy tey bu fekkente ni dangay ngay saaga sa doom nee nañ la de zéro jusqu'à cinq ans cerveau wam mënagul discerner amagul raison raison wam yeewoogul tey bu ñu demee dellu ci xadis yonent bi saa sallam li tax mu ne xale bi à partir de sept ans nañu commencé di ko digal muy julli parce que c'est l'âge de la raison c'est l'âge où la conscience se réveille mais bu fekkente ne xale bi âge boobu conscient am réveillé wul xale bi loo ko sant munu ko discerner moom day copier te seen ay acte moo ëpp ci moom solo tey mën nga ko wax fii ba suba li nga koy wax day dugg fi génn fi mais bu la gisee nga def wala bu la gisee nga wax wala bu la gisee nga jëf loolu da koy copier à la lettre loolu waral tey sa doom boo gisee muy yuuxu nga ni sama doom ni mu mën a yuuxu voilà ta sa bopp da nga yuuxu ndax tey <clears throat> mënoo ne sa doom boo bu la defee dara boo koy tere da da ngay agressif après xale bu génnee di màtt xale yi ci ci école ba euh, di leen di leen di leen di dóor di leen di saaga ñu di la woo di la clamer chaque jour surtout ñu nekk ci Europe bi ndax tubaab yi xamuñu loolu après ngay wax ni sa doom di ko dóor yow au nga wax ak moom ndànk parce xale buy màtte xale buy dóore parce sa xale la bu nekk en colère xale la boo xam ne këram dañ koy dóor il faut xale boobu ñu xool parce que tey tubaab yi loolu boo ko def ñoom xam nañ bu baax que ne sa doom da nga koy dóor parce xale du tëb tëb di dóore par hasard ndax xale li nga koy def loolu lay répété xale ñaari schéma la am soit da nga koy dóor muy répété dóor yi wala da nga koy dóor mu jaaree fa tàppet bu demee bu ñu ko doon rey du fayu parce que mooy il est terrorisé yow xale boobu tey boo bëggee ñëw ne ko waaw lii kenn du ko def te yow boo ko ne lii kenn du ko def yow yaa ngi ko koy def yaa ngi naan kenn du dóor te yaa ngi koy dóor yow ki incohérence bi xale kenn du ko yar ci incohérence incohérence mooy ñaari dëgg yoo ñaari mbir yoo xam ne bii dëgg la bii du nga bëgg yar xale bi ci loolu xale bi dafa am dissonance cognitive la mooy dissonance cognitive mooy deux choses deux réalités qui sonnent d'une manière incohérente dans le cerveau de l'être humain et que vu que l'être humain cerveau boobu mënul euh, comprendre loo xam ni une chose et son contraire xale bi day jéem a rationaliser mbir mi di jéem a wax ni ah sama yaay nee na bu ma dóore pourtant moom daf may door affaire bi day nekk loo xam daf koy jaxase sama yaay na elle-même daf may dóor pourtant ce n'est pas quelque chose de normal nit ki mënoo ne dama la bëgg dama lay dóor Sénégal nag mooy dëkk boo xam ne pour ñoom ah du dóor doomam yi dafa jàpp ni tubaab la dafa jàpp xanaa tubaab moom rek am xol mais sa doom être humain dafa am xol yow être humain nga da nga am xol yow bi nga nekkee xale sa yaay daan la chicoté dañ ci daan kontaan tey bu ñu la mënoon delluwaat ginnaaw doo ñaan yàlla am yaay bu lay dóor tey boo mënoon xëy na retourner en arrière da ngay ñaan yàlla am yaay bu am compassion papa bu am compassion ku la yërëm ku la jox raxma ku la bëgg te dóor yooyu des day des ci xolu nit bi mu dem ba màgg mënul digérer yaay wala papa mënul leen a jege mënul am ci ñoom affection parce que lu tax mooy joxuñu ko tout simplement affection bu mu leen di delloo parce que yar ndénkaane la yar tu es en train de confier une chose à ton capacité da ngay soxla affection da ngay soxla euh, ku la ku la ku la ku la confier tey boo demee ba gis pas personne âgée yi fii ci dëkk bi ils sont isolés et tout dañuy soxla ku leen chérir ku leen jox de l'amour une fois que nga dem ba màggatul âge boobu nga gis ne sa doom xolam sax du ñëw pour mu ne sama yaay ndeysaan sama papa ndeysaan pourtant non mën nañ la jox xaalis de parce que de toutes les façons Sénégal moom waajur bi bu la juree ba nga màgg pour ñu ne yow tekki nga wala nit ku baax nga mooy na nga koy jox xaalis bu ko defee dinañ la jox xaalis mais doo mës a dégg say doom ne la wan la yërmande wan la affection couvé la di la woo chaque jour am na ñoo xam ne mën nañ toog ay semaine duñu woo seen waajur duñu am ne dañuy dëkk ak dem am na ñoo xam ne jëkkër moo leen xam ne la liste est très ñun bu ñu waxee yëg waajur bëgg waajur dañuy jàpp ni xaalis xaalis xaalis non c'est la relation am na ñoo xam ni dañu dem bañ am 40 ans ragal seen waajur bu ñu naree def dara xalaat ni seen waajur du ci ànd ils sont terrorisés bu ñu tëddee duñ nelaw loolu du yar loolu du modèle éducation bu exemplaire parce que say doom duñu la mën a bëgg parce que dañu leen a yar ci ragal yar leen ci xoxatal yar leen ci peur il faut faire très attention on ne peut pas dans la peur dans les menaces dans les chantages xale boobu bu màggee day nekk xale boo xam soit dafay rebelle wu wala mu nekk xale boo xam ne day manquer de confiance bu ko defee yow sa jëm bopp manque de confiance bi daf lay naqari parce que dangay gis xale boo amul fit la xale la boo xamante ni euh, li muy def pour moom du baax tant que nit joxu ko euh, euh, benn booster du ko mën a def tout le temps mu ngi dute tout temps mu ngi nangu ñu koy yàpp mu ngi nangu ñu koy def nii ki nekk ci rébellion nag moom day yaakaar ne moom moom àddina bi moom moom nit ñi autoritaire nekk ci rébellion bu metti tout le temps day jàpp ni moom àddina bi moom dafa war a défendre c'est une personne qui est tout le temps dans moo tax yar boo xamante ni dafa trop laxiste baaxul mooy parce que loolu mooy buggoo sa doom rek xale bi buy gaañu doo ko xool buy bu nekkee ci danger doo ko xool buy def lu bon doo ko xool doo doo waxtaan ak moom jege woo ko xale bi ba nga ko jox tablette bi sànni ko mu dem danga koy dénk ma sàmm ma dem sànni ko mu dem. parce que il faut que xam ni yar bu fekkente ni dafa dafa dafa dafa am benn benn violence bi problème bi muy njëkk a am mooy dañuy gis ni yar bi xale bi. Euh, parti bi nga xam ne moom la ñu xam mooy partie préfrontale bi gérer les pensées di gérer li nga xam ni tey mooy organisation bi di gérer l' apprentissage dafay détruite te bu détruite xale bi dafay nëx xale bi day dem école du mën a jàng du mën a mémoriser alxuraan du mën a comprendre yow da ngay wax ak xale bi nga ne mais kii est ce que mu may dégg ah kay mu ngi lay dégg mais comprendre nga parce que partie bi dafa war a màgg de zéro jusqu'à cinq ans et que vu que partie boobu bàyyiwuñ ko mu màgg xale bi day nekk xale boo xamante ni tey dafay nëx tout simplement xale bi day jaxasoo. du gaaw a discerner te cerveau de l'être humain de de zéro jusqu'à vingt cinq ans dafa nekk en phase de développement vingt cinq ans laa leen wax de et à tout moment nit ki mën na yaraat boppam mën na acquérir des nouvelle fonctionnalités te dañuy wax ne zéro jusqu'à euh, jusqu'à vingt cinq ans mooy cerveau bi nga xamante ni mooy jëmm ci mais l'éducation jusqu'à ngay dee tey mën nga reformuler remodeler waat sa éducation kon éducation bienveillante bu ñu ko waxee tey ñun éducation bu bu bu éducation bu bu bu bu kii bi bu bon bi bu bu violent bi jàngewuñu ko ci diine yonent bi sallallahu alayhi dañ la wax ne la musul dóor doom musul dóor jabar lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan yar ay ay ay ay doomam yar ñu ko wër surga yi doomi surga yi dañ daan xale may ko mais da ngay gis ne ñu ci bari ci saxaaba yi bu ñuy nettali ñu ñu leen yonent bi éduqué euh, yërmande la yàlla ci borom yàlla suñu borom dafa wax ci alxuraan yonent bi sallallahu alayhi tey bu fekkoonte ni dama la def nga nekk ku am xol bu dur def la nga nekk nit bu dëgër nit bu tar saxaaba yi duñ la bëgg te nit pour nga yar ko il faut que mu bëgg la nit dangay créer amour ci xolam pour mu bëgg la te sa doom boo créer ci moom amour ci xolam mu bëgg la mu respecté la xale boobu pour nga jox ko ay valeur dafay yomb c'est normal nag xale bi de zéro jusqu'à cinq ans ba sept ans dina am ay caprice te li ñu wax caprice xale xamul caprice xale nit bu vrai la xale xamul def genre wala def faux xale li muy gis ci environnement moom lay répété xale bu nekkee en crise dafa am besoin de quelque chose déglu ko xoolal lu mu soxla xale tey da ngay gis ni 3 euh, ans ba 6 ans xale bi maternage nga xam ne âge boobu xale dafa war a toll ci daw ci fo tey créé nañu école xale bi 3 ans yóbbu nañ ko école mu war a toog toute la journée ci benn pa ci benn place. te xale li mu soxla ci âge boobu mooy daw yéeg foo ah def lii def laa yàq fii yàq fee âge boobu dañuy gis ne xale euh, deux ans ba trois ans ba quatre ans dañu bëgg di foowee ndox bëgg di fowee lii bëgg di parce que loolu dañu bëgg di tester parce que xale tamit dafa ñëw ci àddina pour jàng pour apprendre xale dafa ñëw ci àddina tey bu la fekkee ci wàll mi ngay togg dina maman li lan la c'est l'occasion pour l'apprendre lii ceeb la lii jën la lii carotte lañ koy waxee lii nangam la xale bi dafay développer intelligence am fekkente ni fekk na la ngay fóot mu ñëw bëgg a fóot bàyyi def lu mu mën nga ne day yàq eh dàq ko fi mu ngi yàq sama fóot bi mu ngi yàq sama lii non mais moment la boo xam ne dafa bëgg laal ndox mi xool saabu bi ban effet lay def xool xëb-xëb bi ban effet lay def tey da ngay gis sa doom 3 ans 4 ans day dugg sa tout sa shampoing tout sa saabu yàq parce que il a besoin de tester il a besoin d' apprendre xale bi dafa ñëw ci àddina bi pour apprendre des outils yi nga xam moom lañu yàlla jox mais ñun amuñu patience xale bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi. xale bi du jàng lu tax ñu naan doomu tubaab bi dañu gën a intelligence suñu doom yi tey doomu tubaab bu la fekkee fii nga toog dina la laaj li la wër yëpp da lay laaja laaja laaja nga ne ay waay xale bi moo mën a laaj ah kay dafay laaj parce que xamul yow école nga yàlla suñu boroom jëlul xale bi jox la ko rek pour nga di ko xool nekk meuble wala mu judd rek màgg comme ñun ni ñu ko bëggee déedéet yàlla dafa la jox xale bi pour xale bi apprendre à travers toi. apprendre avec douceur et bienveillance saa nga gëdd ko saa nga xas ko saa nga ne ko yaa mën a laajte man des fois je reçois des dames yoo xam ne elles ont des problèmes uniquement pour formuler benn phrase poser benn question. parce que tout simplement dañ ko yàgg wax da mën a laaj da mën a laaj boo defee pour nit ki poser question problème la que dañ ma daan wax dama mën a laajte a laaj dama donc du coup nit ki buy laajte dara da ngay gis day jéem a wër wër wër wër pour lan parce que ragal na laajte <laughs> ragal. <laughs> non c'est horrible l'éducation ni muy def doomu aadama dafa dafa doy waar nit ki dem ba ragal a laajte parce que bi mu màggee dem na ba nga xamante ni macha allah xale nit ki amatul benn courage bi Khadim Thiam mu ne macha allah comment faire pour réussir l'éducation de nos enfants surtout avec l'internet toujours euh, tellement aux surfaces euh, regarder le TikTok waaw xam nga dañ toll ci jamonoy technologie loolu moom beneen thème la parce beneen sujet la boo xamante ni moom day bu ñu ko abordé dafay jaxase situation bi mais damay wax ni pour nga réussir l' éducation de de tes enfants il faut que nga éduqué wu ba pare. man à chaque fois su may def formation may damay maye sa defa formation deux jours vingt quatre heures pour former waajur yi pour ñu mën a éduquer seen ay doom mais bu ñu ñëwee samay formation bizarrement dañuy gis ni du ñoom laay jox ay clé pour ñu yar seen doom mais ñoom laay yaraat ñoom laay joxaat bopp parce que si tu ne wala yow nga bëgg na yow li nga jëlee say maam ak sa yaay moom ngay yaraatee say doom da ngay échec parce que nekkatuñ ci jamono boobu tey dañu nekk ci jamono boo xamante ni il faut respecter il faut accepter que la monde le monde a évolué le monde a changé te loolu boo ko accepté wul tey doo mun a yar sa doom yar bu normal donc il faut que ñu xam ne mënoo yar sa doom te yaru woo te yow discipliné woo te yow tegaloo sa bopp ay règle tey commencé fekk tey nga ni sa doom euh, bul dox ba heure telle et pourtant da ngay non règle li ngay tegal sa doom yow yaa ko war a njëkk respecté sa doom bul seetaan filmu tel te yow dangay seetaan filmu tel film bi ni mu araamee sa doom noonu la araamee ci yow mii di mag lépp lu araam sa doom seetaan ko dafa araam yow nga seetaan ko donc violence bi bi xale bi di seetaan ci télé bi yow nga ni film violence la kenn du ko seetaan à de tel âge wala film la bu am sexualité kenn du ko seetaan à de tel âge mais sa cerveau xamante ne mooy problème bi parce que dañ ko tàmm seetaan dem ba nga xam ne dañu jàpp loolooy réalité tey même bu ñu am des relations intimes avec leurs femmes mënuñu leen bëggal parce que lu tax mooy uniquement elles se sont ils se sont éduqués à travers la virtualité. kon gis nga lépp lu doomu aadama di seetaan dafa may conséquence moo tax yàlla suñu borom joxuñu rek libre maanaam libre choix pour suñu bët yi ñu seetaan lu ñu neex déglu lu ñu neex wax lu ñu neex déedéet. bët yeeg suñu sens yi ak nopp yi gémmiñ gi yàlla daf ñu ko jox pour ñu def ci li neex ak li ñuy jëriñ mais par li ñuy détruire tey nag. ils ont créé beaucoup de choses yoo xamante ni c'est pour nous distraire pour fay suñuy ab fay li nga xam ne mooy suñuy aptitude aptitude intellectuelle pour mën a diluer dégrader li nga xam ne tey mooy suñu intelligence pour jox ñu lan ñuy naan des des des des séries des films des réseaux sociaux ñu consommer ci ba nga xam ne dañuy dem ba ñu suñ jëm bopp les adultes sont addicts aux réseaux sociaux après yow nga bëgg a jox sa doom discipline mais quand même ce sera parce que pour nga discipliner ton enfant il faut que yow tamit tu sois discipliné parce que mënoo nekk di lekk toog ci table bi yor sa téléphone koj koj koj après eh, teg sa téléphone yor du sotti <laughs> parce que après day xaw doy waar tey autodiscipline muy commencé balaa ñuy lekk nañu teg benn peñe quelque part nga jël tous les portables y compris sa portable yow nga teg ko foofu nga fay ko ku lay woon a xaar ba nga lekk ba pare nga respecté lekk bi la yàlla parce que sinon nan ngay joxee sa doom éducation sa se euh, transmet d'une manière bu gën a gaaw sur les actes tey li ngay jàngal sa doom mi ngi gën a gaaw ci li muy gis nga def ko tey boo gisee ni sa doom tere nga portable kenn du ko ërtal tey boo duggee woote nañu añ wala woote nañu reer nga ñëw teg sa portable di nga gis ñoom dañ lay topp teg seen portable doo ci wax tey boo gisee sa doom heure tëdd bu jotee wax nga ni heure bi la ñuy tëdd heure tel portable yëpp na fanaan sama nekk kon doo bàyyi benn xale muy fanaan ak portable ci néegam ba leneen ak leneen di ko ci fekk kon xale yi dañ leen war a sécuriser et que aujourd'hui tubaab bi bi mu la defalee portable daf la defal aussi des applications logistiques yu mën a sécuriser xale bi bu mu dugg ci yenn sites yi xale bi bu mu xool yenn mbir yi euh, téléphone bi aussi yow am nga ci benn logistique booy mën a def sa téléphone yow bu la neexee sa doom toog fee nga jël sa téléphone fay téléphone mais yow léegi da ngay jox sa doom téléphone nga nekk Sénégal yow jàngoo internet xamoo dara nga nekk yaay boo xamante ni tu es déconnecté xamoo lu bëri téléphone bi WhatsApp nga ci xam ak ak Facebook après yow ay waa ji xaar moom fi ngi jégal may tuuti ma xool kii di kii di woote lu muy wax fii may leen ma tuuti. asalaamaaleykum ngi si jàmm sa groupe bi da ngeen ko fàccee tijji xanaa mi tam bi mu duggee yàgg na de. <laughs> <laughs> waaye may leen ma tuuti rek allo waaleykum salaam Diedia euh, groupe bi ubbi wuñ ko de man maa ko tëj parce que dama nekk en live parce que bu question yi wàccee duma ma mën a du mën a interagir ak ñoom man maa ko tëj dégg pourtant def naa info de demal nga xool info bi <laughs> yow yëgoo lu xew donc maay jégalu donc kon ñu gis ni il faut que ñu xam ni éducation ci ñun lay commencer te discipliner sa bopp moo gën a jafe parce que ñun dañ jàpp ni ñun comme ay waajur lañu on a droit de faire tout tout est permis mais xale bi non et pourtant non et pourtant non xale yow yaay exemple am ci yow lay xool ci yow lay roy. kon motal liñ lay doyee ba pare bu ko defee éducation bi day simple pourtant man damay gis ay nit nekk fii Europe comme man jur fi seen ay doom ñu màgg ñu ne dañu am problème seen doom yi dañuy taxawaal duñu leen déggal peut-être yi Sambata Ndiaye man ma nekk xale am fi ay doom ñu màgg et que j'ai pas ce problème là. te pourtant samay doom ñu ngi âge adolescent âge bu gën a métti mais relation bi ak communication bi ak nu ma leen di jegee nu may waxtaan ak ñoom ak ku nekk ak sa caractère nu ma lay defee approche créer complicité créer euh, relation bu am affection bu am aussi euh, confiance. aussi xale bi xam ni sama yaay dafa am ci man confiance am na loo xamante ni ruus naa ko def sama yaay daf ma bëgg am na loo xam ne bëgguma ko gaañ bëgguma ko frustré donc xale bi xam ni man jullit laa lii su ma koy bàyyi bàyyi pour yàlla sama borom. xale bi nga bañ ko jàngal mu ragal la parce que bu la ragalee ça ne sert à rien booy génn buntu kër gi mu def li mu war a def mais xale bi danga koy yar xamal ko ni yàlla mi la bind bind ma ñu war koo jaamu maag yow mu ngi ñuy gis te lépp loo def yàlla nu mu lay mbugalee noonu la may mbugalee ndax dafa ma la dénk kon man li ma war mooy lii bu ma la nee dafa xaraam nga bàyyi ko pas pour man mais pour yàlla mi la bind parce que bu dee bëgg nga dugg àjjana ëllëg jàngal xale bi neex neexu àjjana parce que xale bi boo ko jàngalee diineem jàngal ko mu xam suñu borom jàngal ko turu yàlla yi jàngal ko yàlla mooy kan xamal ko kan mooy yàlla mais déedéet yow sa sa doom sa bopp nga koy jàngal ah man de sama yaay nii la ma yaree ah man de sama papa nii la ma yaree ah man de li lay def sama papa man de li yow man man man man man tout ça se repose sur toi l'égoïsme bëgg ñu jaamu la bëgg ñu adorer la bëgg ñu teg ci kaw man de man doom nii nga ma war a def man de doom nii nga ma war a def man de doom tout temps yow yaa ngi nekk ci centre bi ana yàlla. xale boo ko dénkul yàlla jàngaloo ko yàlla boo màggee kay bul jommi bu làqatoo fee di def nangam ak sàngam parce que xale bi xamul yàlla di yow yaa génne yàlla ci éducation moo tax ñu ne sa doom jox ko yàlla bi mu nekk xale bu mooy lan mooy Sénégal dafa jàpp ni jàngal sa doom diine yóbbu naa ko daara yóbbu naa ko internat pour yow pare nga subhanallah yéen est-ce que ça va lu tax du ñu xam ni yóbbu xale daara du jàngal xale bi spirituel loolu jàng nga ko alxuraan d'accord jàngal alxuraan c'est une chose éducation éducation laa wax islamique c'est une autre chose lan mooy éducation xale bi xam ne tey man su ma yeewoo jullit laa dama war def samay asgar yeewu naa samay tànk cëpp ci kaw xale bi depuis mu nekk xale sama am boo ñëwee yëkkati ko bébé la âge ko war a jàngal askaram alhamdulilahi lazi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur xale bi di ko jàng à 3 ans tey même boo ñëwee di ko yee te waxoo ko xale bi dafa koy fàttali parce que âge boobu âge mémorisation la xale bi balaa muy tudd aussi nga ñëw jàngal ko ñaan même bu dee mënagul ñaan trois ans la am mais jàngal ko ñaan yi nga xamante ni mooy ñaan yu yu yu yu simple yu tuuti yi nga tëral ko mu tëdd waaye ñu bëri surtout nag euh, tubaab yi ñu li nekk fii Europe di nga jàngal raconter sa doom histoire di nga ko raconter lii dinga ko raconter la dodo bonne nuit ma chérie wala bonne nuit ma mais quand même doo koy defal askaram doo ko xamal jullit balaa muy tëdd dafay ñaan bu yeewoo nga ne ko jógal mu jóg xale bi buy jàngi école balaa muy jàng ko tàmmal muy julli fajar xale bi balaa mu jàng doog tàmmal mu julli fajar ba ndékki ba war génn kër gi bu taxawee ci kër gi balaa muy génn nga ni ko waxal bismillahi tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah xale bi di day génn kër gi doo ko xamal mu ñaan protection yàlla balaa muy dugg ci kër gi jàngal ko aussi mu mu mu mu ñaan li nga xam ne mooy protection déedéet xale bi daal danga koy bàyyi noonu rek danga koy bàyyi noonu rek xale bi di di di dem loolu c'est pas c'est pas quelque chose de normal xale bi buy lekk njàng ko bismillah yow depuis ngay nàmpal sa doom balaa nga koy saxal sa weer war nga koy waxal bismillah bu corxaanee nga tudd yàlla ange billahi mina sheytaani rajim bu gaañoo subhanallah bu ko dara dalee au lieu xale bu ko dara dalee gis xale xam bu lee bu ñu gaañoo dañuy saaga ay ya saaga au lieu nga jàngal xale bi nit ki boo gaañoo tuddal yàlla inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tuddal yàlla nga am ci tiyaaba mais déedéet xale bi tey boo ko tegee ci kanam télé bi tout le temps mikke film mikke film amul lenn loo xam ne âge am la ci ay yaa xam ci ay application ci ay choses yoo xam ne aussi ñu limite li nga xam ne mooy xale bi avant trois ans zéro écran avant trois ans zéro écran écran rien du tout xale bu weesoo trois ans euh, cinq ans quatre ans cinq ans écran trente minutes mais am ñoo xam seen doom ci kanamu écran bi lay yendu toute la journée pour yow nga noppaliku xale bi bañ a crise bañ a jooy bu ko defee xale bi commencé développer li nga xam ne parce que léegi gis nañ ñu am na autisme yoo xamante wala du dégg wala bu la déggee mënul def discernement wala xale bi mënul socialiser wu amul affection empathème yeewuñu ko jàngaluñ ko di ko câliner jàngaluñ ko di ko di ko déglu di wax ak moom di xool lu muy ressentir xale bu nekkee en colère nga woo ko xale bu nekkee en colère mooy am na manque am na lu mu manqué xale bu yuuxu yuuxu jooy jooy jooy xaru am na lu mu manqué danga koy woo laaj ko lan moo xew lan moo ko naqari bu fekkente ne xale day day xaru di xaru mooy dafa nekk en décharge parce que xale des fois dafay fees mënul gérer émotion am parce que servo am màggagul tey colère yow boo ko yëgee yow muy mag ni muy mettee ci sa xol bi mais imaginel xale bu ndaw bi nga xam ne cerveau am màggagul bu amee colère c'est violent dafay metti ci ñoom pour ñu gérer ko. donc xale bi au lieu moment boobu nga jël ko câliner ko taf ko ci sa dënn bu bañee parce que des fois xale yi mën nañ frustré wu nga bu bañee nga bàyyi ko bàyyi ko mu déchargé wu bàyyi ko mu xaru bàyyi ko mu tëb l'essentiel nga ko bu fi yàq dara bu fi kii dara bu paree nga ne ko léegi kaay wax ma kes ce qui t'a fait mal lan moo la gaañ lan moo la metti communiquer ak xale bi mu utiliser xelam apprendre à dire ses sentiments ce qui lui fait mal lan moo ko gene lan moo ko metti mais gis ngeen éducation bienveillance nag xaw a de laaj communication te la plupart yaay yi mënuñu communiquer yow sa jëkkër bu meree xamoo noo koy xamoo noo koy waxee lan moo la metti waaye moom merati na di ci xool ko bu wàccee nangam sànni mënoo koo dalal sa jëkkër bu jaaxlee xamoo nan nga koy defee approche. bu sa jëkkër bu defee loolu naqari xamoo nan ngay communiquer ak moom ba li ngay jàmbat du indi problème wala kataar da ngay ñëw accuser accuser accuser xasa doom di jooy da nga tàng xol yow da nga naqari deret fu la yaa ngi jooy accuser nga ko di yow def nga ko fukki accusation ci benn seconde. te noonu ngay comporté ak sa jëkkër yi moo tax ngeen am problème ndax tey sa jëkkër bu dee dafa mer mën nga ñëw ne ko ah dama seetlu ni danga nga am loo naqari wala dama seetlu ni ça ne va lan lan moo la daal qu'est-ce qui bu la nee da ma def dara ah j'ai fait quelque chose d'accord je t'écoute waaye ah lan laa la defati man de defuma dara commencé nekk sur la défensive. sa doom bu defooy dara au lieu nga apprendre à écouter parce que si on ne pas écouter on ne pas communiquer si on ne pas parler aussi on ne pas communiquer la plupart d'entre nous ne savent pas communiquer ne savent pas écouter parce que dañuy yow yaa ngi déglu nit ki balaa nit ki di pare yow préparer nga sa réponse kon écouter woo nit ki di yow da ngay yaa ngi préparer pour défendre sa terrain défendre sa intégrité sa doom aussi bu nekkee di say wala di crise au lieu nga xool qu'est-ce qui mais tegleel ay xas ay xas ay xas ay humiliation après nga ne xale dafa ñàkk jom mais c'est normal yaa ko formé ci ñàkk jom di donc éducation bienveillante comme ni ma ko waxee dafa metti parce que dóor moo gën a gaaw xale bi boo ko dóoree tey lan nga ko jàngal def na dara nee nga ko tey tey tey tey tey xas nga ko après moom qu'est-ce qu'est-ce qu'il a appris en fait rien du tout xale dóor ko yow sa bopp nga faj sa colère bi lay gêner xale bi li muy def ça gêne mu lay naqar yow loolu nga. tempéré yow tu vas bien parce que là tu t'es soulagé laa faj nga sa naqar waa léegi xale bi moom moom mi war a jàng si li nga xam ne ni nga def soi-disant daf ko def te baaxul lan nga ko jàngal xale bi def na dara bu ma la gisati nga def lii de d'accord ban leçon la ci tiire ban leçon la ci tiire dara xam nga ñun ñi nekk mag sax yàlla suñu borom bu ñu joxee punition daf ñuy jox leçon ñaateel nga gis tey xale bu jigéen sa yaay neel téyel sa bopp nga bañ nga dem par exemple nga dem ànd ak góor mu ëmbal la yàlla jox na la sanction jox na la punition jox na la leçon mooy ëmb nga sa jàng yàqu na toog nga ci kër gi et que là tu vois que bi moom leer na yow yow kenn dootu la jàngal que ni <laughs> kenn du fréquenté góor ñi leer na nañ des yàlla suñu borom tere la nga jaalu nga dem jaalu nga am ci feebaru sëy leçon bi moom am nga ko am nga sanction bi kon sa doom sanctionné ko kase du ko jàngal dara te xale kenn waru ko sanctionné parce que tollul foofu. xale dañ ko war di jàngal xale bu am ans nga pini ko demal toog fee nga dóor ko bul def li et après lan la si jàng dara xale da ngay communiquer ak moom danga koy wax lii nga xamante ni moo baax ci moom. Souleymane Sagna mu ne bonjour ma soeur vous avez raison moi-même j'agis j'agis comme ça raison est simple on ne pourra pas donner ce qu'on n'a pas c'est ça. Euh, faites-nous une liste faites-nous une liste pour euh, parents à suivre comprendre ma ma listeel leen parents lan la war a suivre loolu dana jafe xam nga doomu aadama li ma leen wax sànq ci commencement bi ci introduction bi mooy ku nekk si ñun dafa am definition de l'éducation man pour man l'éducation mooy lii mooy lii mooy lii mooy lii yow lan mooy sa définition éducation sa définition éducation tey mooy tax nga mën a éduquer sa doom parce que tey yow la plupart tey di nga gis man gis naa beaucoup de man j'ai pas aimé la manière dont on m'a éduqué parce que kenn jox ma affection te dañ ma doon dóor tout le temps teewul kooku wax loolu bu meeree day dóor doomam bu paree da koy rëccu gis naa ñoo xam ne dañ naan man su ma meeree damay dóor sama doom te neexu ma des fois damay woo sama doom baalu ko neexal ko parce que j'ai mal bëgguma ko jox liñ ma jox man mais xam nga lu tax nga koy jox liñ la jox parce que yow éducation bi ñor c'est ancré dans ton ci sa subconscient la nekk booy réagir doo ko tey boo paree da koy regretter parce que c'est déjà ancré il faut nga déconstruire il faut nga accepter que ce qu'on m'a donné y du bien y avait du mal li nga xam ne nag moo ci nekk te baaxul dama koy effacer et que là il faut des efforts il faut yow sa jëm bopp nga bindal sa bopp yow ban parent nga bëgg a nekk ah. loolu du man maa leen koy lister c'est à toi d'écrire selon moi ban modèle de parent laa bëgg def laa bëgg a ban yaay laa bëgg a et nga listé ko et nga di ko xool di ko fàttaliku yaa xam na nga koy taf sa waañ yaa xam na nga koy taf sa nekk et que aussi say doom consigne li ñu lay jox ngay apprendre à le faire parce que là je donne beaucoup de leçons sur l'éducation des enfants parce que damay def ay formation sur l'éducation des enfants bientôt am na formation boo xam ni préparé naa ko ba pare dama koy def sama site internet jaay ko ku ko soxla ay cours la ay cours la ñu préparé dans balaa ngay ëmb ba ëmb ba doom ji màgg ba nekk adolescent def naa ci formation bu complet bientôt dinañ ko jaay ci suñu site yi bu ko defee ku ko dem jënd nga di ko déglu yaa sa borom kër euh, bu yàggee di nga dem ba xam ni lii ak lii ak lii laa war a def ak lii mooy erreur yi ma war a évité ci éduquer sama doom parce que éducation malheureusement wala boog heureusement léegi dañ koy jàng parce que prof yi di nekk maternelle maîtresse yi di jàngale dañ leen a former pour ñu pédagogie mais li ñu leen fàttee former mooy les émotions et l'affection et les conséquences ci booy yuuxu xale wala bu koy gëdd wala bu koy humilier tey li tax xale yu bëri teel a bañ école teel a bëgg a bàyyi parce que beaucoup de professeurs wala beaucoup de maîtresses wala beaucoup de maîtres sont a jàngale c'est une chose sa comportement attitude bi ngay am ak xale bi c'est une autre chose par contre nga gis maître yoo xam ne tey xale bi même bu bëggul jàng ñoom ñoo koy inciter pour xale bi am volonté jàng parce que man mii di wax ak yéen a bañoon ndax ndax damaa ñu laa doon te dëgër bopp donc de bu ko defee dama leen doon bañ lu tax parce que dañu violent woon dañ lay dóor a dóor a dóor ba boo yeewoo doo bëgg a jàngi man école dama bañoon école moo tax tey samay doom dama leen di protéger ci côté boobu tey bu seen maîtresse des waa sa doom def na def na def na d'accord réunion parentale li ma leen mooy xale bi il comme tous les enfants chaque enfant est man maa leen di jàngal xale duñ ko yare bu ñu paree day reste bouche bee di ma xool pourtant ay tubaab lañu. mais formation yi ñu leen di jox bu ñëwee ba ci classe bi dañ koy fàtte parce que xam ne doo yor trente et quelques élèves wala vingt et quelques élèves après nga bëgg xale bi toog benn place tout le temps parce que j'ai un enfant boo xam ne c'est un hyperactif il ne peut pas rester plus de cinq minutes sur sa siège dama leen di ni il est comme ça chaque cinq minutes bu bëggee jóg taxaw tàllal tànkam bàyyi ko taxaw tàllal tànkam et dañ ko doon ba avec temps ils bu ko defee du déranger kenn mais buñ ko teree mu jóg taxaw <laughs> dina perturber dina pëgg table bi dina def lii dina def laa et que en ce dañuy mer lépp la ñuy def mais avec le temps dem nañ ba xam ni xam naa sama doom ku nekk ci ñoom xam naa li nga xam mooy problème j'ai aussi un enfant boo xam ni c'est un c'est un introverti ma fille est introvertie du wax dafa tranquille ci biir kër gi macha allah dafay waxtaan dafay ubbeeku mais bu nekkee classe c'est une c'est une personne boo xam ne bëriwul wax dafay réservé du n'importe qui lay dugg dañ ma daan woo waaw moom dafa réservé wu kenn xamul qu'est-ce qu'il a kenn xamul qu'est-ce qu'il va pas tout temps de son côté ma leen elle comme ça c'est parce que c'est une personne qui discerne avec qui aller du ànd ak ñëpp si elle ne te parle pas parce mi nga xam ne yaay prof bi nga xool xale bi nan nga koy rapproché nan nga koy rassuré nan nga koy joxe sécurité ba xale bi mën a wax a yow sans problème ils l'ont ils l'ont accepté mais su fekkente ni bu ñu ñëwee ne ma sa doom ji di wax nangam sax bu ñëwee ne da nga bon da nga ah da nekk école doo foo kenn doo xaritoo kenn réservé wu sa côté nangam sangam damay détruire sama doom mais day ñëw dama koy rassuré xamal ko ni man je suis là pour vous défendre keneen ki tamit bu dee def ki hyper tamit nga xam ne parce que am naa sama taaw à l'époque je savais pas nu ñuy yare sama taaw dañ ma daan boole école bu ñëwee ma jàpp ko dóor ko bi mu bëgg a def parce que man je croyais que c'est comme ça noonu la ñuy doom ma def ko xale boo xam ne manque de confiance ragal mel ni par la suite mën naa ne balaa muy màgg xëy na j'ai eu la la cette chance de me sur l'éducation des enfants di que su ma yàlla dimbali woon dama doon détruire xale bi parce que dama ko daan yuuxu dama ko daan gëdd parce que tout le temps ñu ngi koy boole dafa hyper actif dafa parce que c'est génétique mes enfants de zéro jusqu'à dix ans ils sont hyper actifs et que là je connais que loolu samay nature doom la pourtant keneen ki melul noonu mais ñaar ñu góor ñu noonu la ñu mel dañu hyper actif te loolu mën naa ne bokku beaucoup bokku d'enfants de zéro jusqu'à dix ans surtout góor ñi la plupart ci góor ñi dañuy hyper actif loolu gène Afrique surtout ñun africain yi c'est c'est c'est prouvé que ni ñun africains yi suñu ay jeunes la plupart ba bañ a am 10 ans dañuy hyper actif am na ñoo xam ne après dañuy dañuy dañuy tranquille dañuy sedd dañuy yaru et que après sama taaw mi ngi nii maintenant c'est <laughs> il est tranquille du dafa dafa dafa il est doux il est il tranquille tout par contre su fekkente ni tey dama jàppoon ne lii du passé mën na am ma yàq sama yaru doom am na ñoo xam ne yàq nañ seen yaru doom parce que da ngay am solo mu hyperactif xale bi day cëpp lay cëpp lay cëpp que nature am la il besoin de se de se fouguer des gis xale bu mel noonu de temps en temps àndal ak moom génnal yóbbu ko parc yóbbu ko jardin yóbbu ko fenn utul ko bal bàyyi ko mu tëdd nelaw mais déedéet da ngay bëgg tëj xale bi ci appartement bi après nga ne ko bul yëg ci fii bul taf yi bul def laa xale bi day metti on a torturé on a traumatisé nos enfants ñun pour ñun xale daal amul besoin Amadou Thiam mu ne macha allah Fatima vous parlez d'un sujet ki euh, qui est le quotidien de l'humanité merci beaucoup coach Thiam nuyu nañ la ziar nañ la <laughs> am na solo macha allah Oumou Sow tout à fait d'accord avec vous soxna Fatima Amadou Thiam mu ne lii de mooy euh, ñi gëm ñii de mooy lan mooy moo am yàlla yàlla buur bi sàmm la amiin Mia nuyu nañ la ziar nañ la euh, macha allah xaaral ma lire nag seen commentaire yi tuuti là je m'arrête <laughs> parce que des fois booy lire commentaire def sujet bi rek boo moytul doo ci génn day xaw a doy waar. mu ne mais c'est difficile euh, pour les âgés de 17 ans 18 ans ça dépend man j'ai un ado de 18 ans j'ai un un autre ado de 15 ans. xam nga yar base bi mooy comme li ma leen ko waxee gis nga de zéro jusqu'à 10 ans bu dëgëree yar ba. après même 18 ans dafay passé de zéro jusqu'à 10 ans bu ratee 18 ans moom xale bi ay rab la lay wan <laughs> moom lay wax crise adolescence pourtant du ñëpp ñoo def crise adolescence man j'ai un ado deful crise adolescence c'est un ado normal tranquille responsable des il fait ses mu ngi noonu ses conneries tout mais quand c'est son âge je le comprends il y a des choses qu'il fait des ma ramener ko à la raison waxtaan ak moom responsabiliser ko et tout mais ba tey xale la parce que adolescent 18 ans la mais ba tey xale la daf j'ai mu ngi ci phase jeunesse on doit respecter cela aussi mais bëgg xale bi am 18 ans rek ñu ne ko mag nga defal lii non parce que jamono yi dafa changé mën na am à l'époque man bi may am 17 ans wala 18 ans j'étais déjà responsable parce sama époque la woon mais tey époque bi tey xale bu am 18 ans nga bëgg ko jox yéen responsabilité ça ne passe pas ça ne passe pas parce que c'est pas la je vous suis depuis depuis Italie ah merci beaucoup yaa ñu ngi nii waa Italie yëpp Pape Dia mu ne xale lu yàgg gis lay lay mel effectivement euh, les commentaires nag des fois day daw du ci mën a am accéder mu ne ma fii elle pleure pour tout et a 10 ans est-ce que c'est normal non non non c'est pas normal xale bu nekkee en colère surtout que xale la boo xam ne mun na communiquer et a 10 ans. day jooy soit mu nekk hypersensible boo xam ni lu tout daf koy affecté parce que bu ñu nee hypersensibilité nit xale dafa am problème pour gérer ses émotions te hypersensibilité boobu bu ñu ko teelul faj day dem ba nekk pathologie bu normal moo naam xale bi nit ki day dem ba nekk mag am hypersensibilité émotionnelle et que lu tuuti mun na yàq journée lu touti mun na ko affecté lu tuuti mun na ko jooyloo lu tuuti mun na ko merloo loolu il faut xale bi déjà ngay accueillir ses émotions quand elle est comme ni ma leen ko waxee colère lan mooy indi frustration mooy xale bi ay besoin kenn respecté wu ko soit day soxla dara kenn du ko jox wala day soxla nga comprendre ko doo ko comprendre day soxla nga déglu ko doo ko déglu day soxla nga wax ak moom doo wax ak moom ko man sa yaay lan nga may reproché lan moo la neexul ci man lan mooy sama agissement yoo xam tey boo sañoon ma changé ko bu ko bëggul wax bu dee xale bi mun bind la nga bindloo ko ko parce que au moins là nga xam nan nga rectifier say parce que ñoom ñi ñuy yar ñoom ñii ñooñu gën a a wax ñun lan la ñuy doxalee ak ñoom pour ñun ñu mën ko def parce que sinon dañuy avancé ci lëndam waaw man mi dafay jusqu'à présent des fois il m'arrive que ma woo sama doom yi fii ci gànnaaw à chaque fois ma laaj ko lan moo la neexul ci man mu ne ma dangaa bëri wax danga may sermonné tout le temps rek <laughs> ko léegi dinaa waaj dina sermonné <laughs> léegi dinaa wàññi di la sermonné léegi lan nga bëgg ma def la ma di la xool comme ça ma ne ko non day yomb trop <laughs> soit ñuy soit ma lay ma lay chicoté wala may wax ak yow ban nga ci taal mu ne déedéet moom kay kon deel wax ak man ma ne ko la c'est ça. parce que nag wax ji moom mënul ñàkk donc euh, xale bi il faut que nga ngay nga koy jàngal muy exprimer wu parce que c'est c'est c'est une euh, fille qui a 10 ans il faut que nga koy apprendre pour qu'elle s'exprime parce que quand quand une personne apprend à s'exprimer day libérer émotion am c'est pour cela tey coaching bi pour lan moo tax mu nekk fii da ngay gis jigéen accumuler 10 ans de souffrance 5 ans de problème nga toog ak moom wax ak moom 5 minutes mu ne la je me suis libérée je me sens ko dara tu l'as juste écouté mais elle se s'est sentie écoutée sans jugement lu gën a am importance nag mooy sa doom tey bu ñëwee di wax ak yow noppil ngir yàlla bu ko jugé bu ko bu waxee dara xëy na àndoo ci ne ko lan moo tax nga wax loolu bu paree yow nga explique ses raisons mais éviter naan ko yow yow yow def nga def nga def nga def accusation accusation ak jugement képp koo koy def du la bëgg parce que kenn bëggul ko la jugé kenn bëggul ko la accusé tey sa doom même bu la defee dara. bu ko ne lii nga def tu def nga ma lii wala wax nga la ne ko je me en colère parce que sa doom mu defee dara mu merloo la du moom moo la merloo lim la def yow yaa am boobu sensation parce que keneen doomam mun na ko def te du am colère kon colère bi c'est lié à toi à ton histoire à tes émotions mais pas avec ce qu'il a fait il faut savoir discerner ma ñëw ci euh, Nous, Mbay, nous demande que ce que Moi, je, je réponds bien les questions de ma fille sans problème. Il faut être ouverte avec les enfants. Alors, l'important, là, je parle de cuisine. Nous, les de la je suis parfaitement d'accord avec vous. Par rapport à euh, mes enfants, il y a tellement de turbulents, tellement de tutus que euh, que si tu décides de ne pas utiliser le bâton attends commentaire baa ngay dem nag xaalis yi moom jàmm si tu décides de ne pas utiliser le bâton on favorise le dialogue il devient encore plus terrible ma fille a juste deux ans je m'occupe bien d'elle et je joue je communique je danse je suis douce affectueuse avec celle qui a des deux ans kay c'est très facile nag avec les autres kay moo may jaaxal ci yàlla yaa ngay dem nag euh, xaaral ma xool ma sa commentaire bi lii nag moom jàmm la euh, mu ne la bagarre mënuma ko sax dafa pànk pànk na trop dëgër bopp waaw lii ay jugement la juge nga fi ba doyal de Ah, pour <laughs> et pourtant je m'efforce toujours de lui montrer ce qui est bien ce qui est mal juste les jours sans école c'est vrai torture tellement que euh, épuisant donc su ma bëggee comprendre bu baax sa kawante dafa gudd tam ñu kii su ma bëggee comprendre daal mooy nee nga da ngay def lépp loo mën mais mënoo bañ a utiliser bâton parce que des fois xale yi dëgër bopp li ma encore une xale xamul dëgër bopp xale c'est juste un être qui ne connaît pas a besoin de savoir parce que xale boo koy tere dala xamu ko la plupart du temps da ngay gis ni da day insister ci li nga koy tere te de nature l'homme l'être humain comme ça mooy xale dafa soxla comprendre te ni ngay expliquer xale bi mooy tax nga expliquer ko dara mu bàyyi ko wala mu bar ko bàyyi parce que li may wax bu fekkoon nekk dana loo xamante ni dama koy def te ma mën a ne lii de doxul mais le fait que ma koy utiliser ak samay doom muy jàll le fait ko aussi ma koy utiliser ak xale yi may éduquer xale yi may yar xale fi may liggéeyee muy jàll moo tax ma ni méthode na boo xamante ni ñun moom la ñuy utiliser en tant que éducatrice euh, ñi may former depuis des années léegi mu def bientôt trois ans quatre ans maa ngi forme ay femmes ci éducation des enfants maa ngi joxe ay formation coaching et que ñi ci def euh, li nga xamante ni mooy seen euh, yéene dëgg dafay marché sax dafay jàll mooy avant dala di xew mooy le rôle d'une mère tey wala le rôle d'un parent tey dafa mel ni fardeau la parce que dañuy éduquer parce que peur ñu bëri dañuy ragal dama ragal sama doom mel ni dama ragal sama doom def li dama ragal ragal ragal ragal amatuñu relation ak suñu doom épanouie maanaam être des femmes des mères épanouies des mères qui sont satisfaites qui sont heureuses d'être mères mais ay mères la ñu nekk dans la pression nekk ci yàkkamti nekk ci impatience te loolu yëpp dafay indi problème mooy nit ki il faut que nga comprendre ne sa rôle en tant que mère dafa war a nekk épanouissement sa doom pour nga yar ko li ma wax encore une fois mooy nga créer relation bu stable ak moom nga créer relation amicale et affectueuse xale bi am zéro ba deux ans kooku c'est normal boo quatre ans ba cinq ans surtout bu commencé am cinq am la raison xale boobu day commencé tëtu lu tax parce que léegi am na discernement moo tax ma ne xale fexeel ba bu ko yar na nga cohérent bu ko tere dara fekk da koy def. mais li ñu koy tere aussi na ko jox de bagage yu suffisant pour mu mën ko bàyyi mooy xale bi ngay waxtaan ak moom privilégier la communication expliqué ko pour pourquoi du comment ak ni nga ko koy expliquer mooy xale tey booy wax ak moom dangay sukk ba wàccee ak moom wala nga toog teg ko sa kaw jàkkaarloog moom nga tolloo ak moom boo koy tiim di wax ak moom wala nga koy yuuxu wala nga koy gëdd wala nga koy forcer xale bi du la déggal wax wax wax mais nan ngay waxee nan ngay communiquer xale bi xale dangay communiquer moom wàccee sa baat ma chérie est-ce que xam nga ni maman daf la bëgg est-ce que xam nga maman lii mu lay wax daf la ko wax pour ton bien lii nga bëgg a def boo ko defee xam nga la moo ci mën a fekk mun na la déedéet bëgg nga ma expliquer ko waaw lii ak lii ak ma la ciy fekk da nga bëgg loolu daal bien sûr que def la naan kon bu ko def parce que boo ko defee lii ma la ciy fekk est-ce que bëgg ñu nekk xarit waaw kon pacte la ma yow mooy contrat la ma ak yow pour ñu nekk xarit te pour ñu nekk xarit y a des choses que tu ne dois pas faire que man je est-ce que xam nga ni même maman dafa may introduction même maman dafa am loo xam ne yàlla daf ko interdire mu def ceci mu def cela mu def cela xam nga lu tax parce que yàlla dafa ma bëgg moo tax mu interdire ma beaucoup de choses même papa dafa may introduction parce que yàlla daf ko interdire lu bëri est-ce que xam nga même loi yi nga xam ne mooy loi yi régir république bi même xale bu amee 4 euh, ans 5 ans dina comprendre état président waa président bi est-ce que xam nga am na tey su ma génnoon ci mbedd mi def léeg-léeg lii dañ may tëj def bi Parce que ce sont des introductions. Les introductions sont là pour créer de l'ordre. Famille, système familial, dafa war a am li nga xam ne mooy de l'ordre dafa war a am ay loi loi yi kan ko fi teg papa dafiy teg ay loi maman dafiy teg ay loi maman dafa war a topp loi wu papa papa aussi dafa war a topp loi wu yàlla mais yow tamit da nga war a topp loi maman loi papa c'est pas aussi difficile que ça ñu expliquer à nos enfants que les interdits sont là pour nous aider aussi éviter ñu certains dangers et certaines mais des fois am na ay mag yoo xam ne sax dañu am problème avec les interdits am na mag ñoo xam ne dañu am problème ak interdiction loi wala interdiction yàlla yi lu tax parce que uniquement lu ñu li nga xam ne mooy interprétation ak euh, bienfait yi nekk ci interdiction yu ñu yàlla di interdire mais boo demee ba xam ne yàlla li mu lay interdire c'est parce que daf la bëgg mais boo demee ba xam ne aussi loi bi li muy interdire c'est le bien pour tout le monde danga koy accepter dañ ciy adhérer yow sax da ngay xeex pour jàppale interdiction yooyu parce que tey ñun man bu ma demee ba comprendre tey lii yàlla bëgg ko mais tey damay fexe tey bu ma demee ba comprendre par exemple jigéen dafa war a muur ay awraam lu tax parce que yàlla daf ñu bëgg lu tax parce que ñu bëgg a sàmm daf ñu bëgg a parce que nous sommes importants nous sommes des êtres yoo xam ne dañu am valeur parce que ci ñun la yàlla di construire vie lu tax parce que yàlla dafa bëgg aussi préserver les hommes pour ñu bañ a être des personnes distraites léegi kon man muuraay boobu kon daf may neex parce que je sais que yàlla sant ma mu muuru pour ma sanctionner yàlla sant ma mu muuru pour xëy na euh, bañ ma dund sama dund mais yàlla daf ma sant ma muuru pour ma préserver donc là je suis fière et satisfaite et man maay propagande sax pour nit ñi muuru parce que lu tax mooy c'est un bienfait pour tout le monde pour préserver sama bopp pour préserver l'homme pour qu'il ne tombe pas dans certaines choses pour préserver le regard euh, des autres sur moi mais aussi pour am ci tuyaaba parce que uniquement topp naa li ma yàlla wax mais les interdits bu ñu ko gisee ci euh, kii bi nga xamante ni bu ñu ko gisee ci euh, bu ñu ko gisee les interdictions kii li wax quelle langue parles-tu du français <laughs> <laughs> comme xanaa anglais laa leen di làkk fi mu nekk nii bu ñu gisee interdiction yi ci bët bi nga xam ne daal bët la bu positif rek dañuy mën a dañuy mën a euh, dimbali suñu doom yi pour ñu adhérer ci sans problème aussi beneen méthode boo xam ne dina la jàppale bu dee xale bi mu ngi def jardin mën na bind da ngay bind interdiction yépp si benn feuille bu mag nga bind ko ci lettre yu nga ngande nga def ci rouge li nga xam ne aussi mooy lii baax yi nga xam ne certaines choses yi nga xam ne xale bi par exemple danga ko naan boo wàccee ranger fi sa daal mu bañ ko sànni sa saak teg ko fii bu wàccee ranger ay daalam chaque jour li bu defee erreur dañ koy defal avertissement rouge donc bu defee plusieurs erreurs donc jour boobu mën nga ko bañ a punir mën na nekk ay punition yoo xam ne par exemple punition yu banal ah par exemple ah tey dañu waroon ànd fii duñ fa ànd tey on devait faire ceci duñ ko def wala tey dañu waroon seetaan li maag yow duñ ko seetaan wala tey dañu waroon euh, foo duñu foo mu nekk ay punition yoo xam ne c'est banal mais c'est important pour lui aussi li nga xamante ni tey mooy bu defee dara lu baax da nga koy complimenter tàcc ko xale bi na yëg ni li mu def lu baax la bu defee loo xamante ni tey da ngay gis ni lu lu lu lu safaanu la wax ak moom ak douceur parce que xale dañ koy jàng moom kersa dañ koy jàngal tey bu defee dara nga wax ak moom ndànk wax ak moom bañ ko toroxal ci kanam nit ñi bañ ko humilier bañ ko saaga mais nga wax ak moom ci douceur wax ak moom ci pet wax ak moom en douceur respecté ko wan ko respect bi ñu ko jox xale bi yëg nii dafa am dignité te am na loo xam ni xamu ko te du nangu ko ko yuux wala ko xas parce que da ko yar ci loolu bu defee lu baax nga complimenté ko nga tàcc ko nga apprécier ko nga wan ko ne lu baax la def ba mu yëg ko mais bu fekkente ni xale bi lu bon rek la ñuy gis lu baax li kenn du complimenté doy waar mu ne très intéressant comment faire pour participer à formation waaw formation yi maintenant ñu ngi ci euh, waay if yaa ngi bëgg a métti formation yi c'est en cours euh, formation yi c'est en cours de ce fait que d'ici euh, septembre la ñuy ubbiwaat waaw bii nekk en cours nii avril lay jeex incha allah bu ko defee dañuy vacances waaw vacances yi moom la ñuy xaw a bouger wala xaw a déplacer du coup euh, après les vacances yi incha allah mais je suis parfaitement d' par rapport bi lii naa ko moom des fois dafay yéeg très intéressant commentaire yi xaw a yéema de. Beaucoup d'enfants ont raté leur vie de l'enfance à cause de l'influence négative de leurs tuteurs qui n'ont aucune émotion waaw loolu moom tout à fait parce que nit ki moom ki lay yar bu la bàyyiwul ngay libérer say émotion jàngalu la que ni être humain nga am nga droit mer am nga droit kontaan am nga droit frustré am nga droit ragal am nga droit lii xale day ragal daw katafu yaayam sax nga mbéj ko dangaa suuf sori ma mën a tappale looy yuuxu looy say looy nangam sans pour ko dal xale bu ñëwee di wax da nga bëri xale dafa soxla di wax laaj ko boo amee gan xale bi ne jamet nga xulli ko ay bët néew ma la du fi ñëw hmm. pourtant xale bi bu ñëwee am nga ay gan ñëw na woo ko ne ko kaay kaay ma chérie kaay lan nga bëgg lan nga soxla xool ko lan nga soxla xale bi boo ko laajee lu mu soxla bu la waxee lu mu soxla da ngay gis mu demaat mais boo ko xullee ay bët tànk duggul ci biir bi du am jàpp il faut que ñu <laughs> il faut que ñu xam nit nan lay fonctionner pour ñu mën ko dimbali parce que sinon ma sama doom toog bañ a jóg la mënul ci classe maître yi sax dañoo sonn toog comprendre ma toog bañ a jóg la mënul wala dafa maanaam dafa bu toogee wala dafa bëggul toog comprendre ma exactement elle a six ans xale bi six la am xale bi six ans la am macha allah ma soeur c'est juste donc il faut que ñu xam ni doo leen ma formel sama jabar waaye yow la ñuy former ba pare xam nga man li ma metti nag ci góor ñi tey ma wax ko góor ñi dañuy ñëw ci man ci coaching ne ma dama bëgg nga coacher sama jabar parce que da nga jàpp ne da nga parfaite da nga jàpp ne tu un être parfait ba yow sa jabar la ñu war a coacher mën na nekk erreur bi ngay seet nekkul sa jabar ci yow la nekk parce que sa vision la sa projection la sa perception la kon yaa ko na sa jabar elle li ma neex ci jigéen ñi mooy bu ñu ñëwee am problème ak seen jëkkër ñoom elles s'accuser elles essayer d'évoluer dañ lay wax ni lii moo xew lii moo xew lii moo xew je veux des solutions l'homme quand il vient dafay accuser jabaram lépp ba pare nag bëgg ma jàppale ci accusation bi kon duma ma la dimbali man boo accuser si jabar accusation bi ci yow laa koy delloo parce que tu es responsable de ta kon s'il y a quelque chose qui ne va pas ceci dit sa relation si sa comportement la si sa manière de faire la kon yow laa war a interagiral yow laa war a former yow laa war a coacher yow laa war a jàngal comment devenir un leader ba nga xam ni gis nga leader mooy ki nga xam ne li nga bëgg ci nit ñi da koy am li nga bëgg ci sa peuple da koy am. man je forme des femmes te li ma bëgg ci ñoom dama koy am tey formation bu commencé su ma nee femmes yi nii laa bëgg ñu doxalee ko dama koy am lu tax ma koy am par mon attitude damay nekk ak ñoom H24 pendant 3 mois. formate leen reprogrammé leen ñu dem am beneen nouvelle vie ba yëg ni ñoom seen dund ça changé et c'est pas par hasard chaque saison ñuy am autant de femmes chaque saison ñu am plus de cinquantaine de femmes pour la parce que y a des bu doon ay bla bla bla <laughs> doo doo gis kenn boo defee benn doo gis kenn ah kon lépp dafay delluwaat si yow yow mii nga xam ne góor nga nga nekk leader tey góor ñi dañu nekk ay góor ay père de famille mais fàtte ni war a nekk leader bi diriger bato bi te booy diriger bato bi dafa am noo war a mel. tey nit ki mënoo ko yilif ci ay balabla nit da nga ko yilif ci ay jëf ci ay kàddu ci doxalin ci discipline ci mu yëg la ci mu naw la ci mu respecté la parce que yow doxalin boobu ngay wane. waaw ki ne Fall mu ne elle se lève en ah, d' accord loolu normal la pour un enfant a 6 de le dire même ah, parce que xale bu fekkente ni euh, amagul 10 ans te des fois sax mu nekk ci parce que xale yi da habitude dañu am hyperactivité am na xale yoo xam dañuy am hyperactivité mënuñu toog plus de 5 minutes. et c'est normal bu dee fii en Europe la xale bi après mën nañ koy mën nañ la référer nga yóbbu ko ci neuropsychiatrie ñu daal di koy diagnostiquer xool bu dee xale bi am hyperactivité wala moom manque de tension xale boobu dañ koy may ces cinq minutes là c'est obligatoire parce que professionnel moo ko bind xamal la ni sa doom elle a besoin de se lever chaque cinq chaque dix minutes wala chaque trente minutes parce que c'est un besoin plus plus fort que nuróowul ak yeneen xale yi bokkul ak yeneen xale yi malheureusement nit ñi bokkuñu nit ñi yamuñu am na xale boo xam ne mën nga ko teg mu toog toute la journée parce que xale boobu xëy na c'est ça nature am na xale boo xam ne mënu te d'habitude xale yi mel noonu boo seetloo la plupart si ñoom balaa ñuy am 10 ans après dañuy calme dañuy normal et que tout devient normal mais nature nit la donc man dama xale moom bu mel noonu ay maîtresse am ñoo war a am patience tamay nit ñi jàmm parce loolu dañu war a jàngale kon nañuy apprendre à gérer leur classe te yi ñuy jàngal xam ne ñëpp mënuñu am léeg nga am élèves yoo xamante ni dañ lay <laughs> boucher le cerveau léeg-léeg nga am élèves yoo dañuy dañuy régler dañuy normal waaw donc xale moom yar bi nga koy yar clé bi clé a capital niveau relationnel bi relation bi nga am ak xale bi mu nekk relation de confiance relation de respect xale bi di ko war a respecté ba am na yoo xam ne doo ko def parce que dañu jàpp ne xale du nit xale bi yaa ko moom li nga bëgg lay def li nga bëgg lay mel comme ni ma ko waxee xale bi moomoo ko yàllaa ko moom yéen ñaar war a ànd jaamu yàlla xale bi bu ko ragaloo sa bopp ragaloo ko yàlla

kon xale bi aussi nga jàngal ko tey bu ngeen di waxtaan mm, nga respecté idée mu respecté sa idée parce que loolu daf koy may xale bi un bon jour mu bañ a nekk un dominateur wala une dominatrice soit disant que heure booy waxtaan ki da ngay werante ak moom da nga koy bëgg a ni ngay nga koy bëgg a wan ni ni nga ni nii la war a demee déedéet parce que am na nit ñoo xam ni malheureusement mënuñu accepter l'idée de l'autre loolu da koy gis ba ci des fois télévision da gis ko xam day bëgg am dëgg coûte que coûte bëgg li mu wax loolu la nit ñi war a gëm mais yow doo yàlla doo yonent nga bëgg li nga xam nit ñi di ko gëm loolu fu am ginnaaw nit rek nga <laughs> joxal nit ñi liberté des fois nit ñëw ci sama ma noo bi na ku ma ku ma bindal loolu ci commentaire ah li nga conseil bi nga joxe est-ce que man su ma ko utiliser dina ma arrangé ma ne ma chérie si ça ne t'arrange pas ne l'utilise pas c'est juste un conseil mu ne ah, merci de ton arrogance ma ne kon damaa arrogant nii ah man de jombi naa léegi lan nga bëggoon ma wax la <laughs> ma forcer la wala ma convaincre la man je ne suis pas là pour vous convaincre ah je suis pour vous donner li nga xam ne mooy li ma jàng gëm ni lu baax la et aussi ma di ko pratiquer sama dund di ci gis ay njëriñ su fekkente ni arrangé na leen ngeen jël ko bu leen ka bu leen arrangé wul bu ngeen ko jëlu man lan la may yàqal ci sama dund <laughs> man du ma yàqal dara du ma du ma <laughs> du ma dara ci sama dund don comme li may wax naan nit ñi dañ leen di jox liberté ñu nekk ay nit jox leen liberté ñuy def erreur jox leen liberté ñuy choisir say doom tey am na foo xam ne bu ñu fa tollee daal ak yére sa boo leen koy jëndal jox leen liberté ñu choisir bu ñu choisiree bu baaxul nga xam leen ah lii ak lii baaxul yére bii kat jigéen di ko sol parce que wala yére bi dafa trop décolleté wala dafa gàtt wala dafa lii war a ko choisir te xale am na noo koy solalee ba mu am na loo xam ne du ko choisir góor ñu aussi jox leen ñu mën a choisir seen yére 6 ans 10 ans ban couleur moo la neex ban lii moo la neex ko ñëw jox ko tu xale bi même boo koy tànnal école sax des fois il peut arriver nga daal di koy xool natt xalaatam dañu war a tuxu dañu war a lii ban école laa la war a dugal pour natt xalaatam pour xool xale bi ni muy xalaatee pour jàngal ko mu xam am autonomie parce que am na mag ñoo xam ne dañuy dem ma nekk euh, ne dëgër bopp nag xale bi am deux ans euh, rek mu nekk lu ñuy mu nekk lu ñuy mat day day dagg parfois. nga dóor ko mu noppi rëccu ndax xol danga koy doo pare noppi ndax xol bu tàng waaw Oury Mouhamed Diop waaw mooy li ma doon wax ci commencement bi après ku ci am bu ngeen amee possibilité seetaan live bi ci commencement bi daf ciy baax parce que euh, xëy na passé naa foofu nee naa xale bu dëgër bopp ça n'existe pas parce que dëgër bopp mooy ki xam dara ba pare entêté wu ci parce que ne du def lii xale à chaque fois mu entêté wu ci dara seen normal xale bi dëgër bopp parce que xale amagul âge raison ba mën a discerner di dëgër ci dara wala di bàyyi dara à chaque fois ñu gis ni xale deux ans la am cerveau dafa nekk ci phase maturation dafa war a màgg te cerveau bi màgg bi mu war a màgg sa attitude moo ko mën a dimbali pour xale bi mën a xam lan la war a def lu baax ak lan la war a def lu bon kon âge yu deux ans boo dóoree sa doom da koy détruire mooy cerveau bi partie bi nga xam ne mooy partie bi euh, rationaliser partie bi apprendre foofu day yàqu wala dootul màgg tey bu ñu defee test IRM ci xale yi dund violence xale yi ñuy dóor da ngay gis ne seen cerveau dafay yàqu xale bi du am intelligence bi mu war a am. dafay nax école day am ay problème école day am problème apprentissage pour mu jàpp problème la pour mu mémoriser problème la jàngam day am problème ñu naan dafa nëx dafa lii bëggul jàng amul amul motivation wala amul fekk na c'est pas ça fekk na c'est juste que xale bi dañu yàq partie préfrontale bi gérer l'apprentissage te parti boobu lan moo ko yàq dóor ak humiliation lan moo koy defar waxtaan porter ko à ce que mu réfléchir euh, proposer ko à que mu comprendre am patience am bienveillance loolu mooy li nga xamante ni moo koy yokk mu màgg te partie boobu bu détruitoo xale bi mën na mag comme ni nga ko am trouble euh, trouble du comportemental euh, la comportement trouble comportemental yi bu ñu ko waxee ce sont des troubles yoo xamante ni dafay affecter comportement xale bi xale bi mën na nekk hyperactif xale bi mun na nekk xale boo xam ne day manque d'attention maanaam mënul concentré wu xale bi mënul concentré wu wala mu nekk xale boo xamante ni dafay violent wala mu nekk xale boo xam ne day agressive nekk xale boo xam ne danger rek moo koy tenté parce que lu tax mooy parti bi nga xam ne moo waroon gérer rationalité pour moo xam ne lii baaxul lii baax na c'est détruit du coup xale boo ko ne lii baaxul ak lii baax na moom fii lay dugg génn fii parce que mënul comprendre li baax ak li bon parce que tout simplement parti boobu nga xam ni moom la yàlla suñu borom bindee doomu aadama pour mu mën a def distinction ci àddinaam c'est détruit kon loolu il faut ñu bàyyi ci xel xale bi ñuy dóor tout le temps aussi conséquence mooy cerveau bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw muy ndong gi partie euh, cerveau limbique bi cerveau archaïen bi servo boobu dañuy gis ni bu yàqoo xale bi dafay nekk koo xamante ni day stressé tout le temps day angoissé tout le temps day nekk tout le temps ci peur ak panique loolu tax nit di màgg am problème mu angoisse peur panique fu ñu ko fekk fit bi day tëf tëf tëf tëf muy am envie jooy di xol bi tàng après mu ne dama am ay rab dama am jinne sama émotion day changé xaw ma lu tax ma mel nii xaw parce que tax mooy xale bi dañ ko yàgg a dóor parce que cerveau bi nekk ci ginnaaw moom yàlla daf ko defar uniquement pour mu ñuy avertir au danger. tey loolu waral tey suñu organisme sensoriel yi tey sa bët boo séenee loo xam ne dafay dafa ragallu sa cerveau boobu daf la naan préparé wul nga teppi mbaa nga ut arme nga défendre sa bopp <laughs> wala nga daal di infligé taxaw benn place ñetti réaction yooyu la nit am. tey boo toogee nga dégg ay son tey par exemple nga dégg son lu mel ne animaux bu féroce. sa servo bi ci ginnaaw moo lay jox alerte ne la préparé wu nga daw wala nga préparé wu ut arme nga yaakaarloo euh, situation bi wala tey nga tiit ba sidéré wu nga toog benn place mënutoo réagir kon servo boobu yàlla daf ko préparé pour danger yi léegi imaginer à chaque fois nga dóor sa doom servo bi nekk ci ginnaaw mu ko naan préparé wul nga défendre sa bopp xale bi ñaari défense la am parce que xale mënul mënul défendre boppam soit dafay nekk xale boo dafay sidéré jëlee émotion congelé ko pour bañ a sentir douleur ak métit bi ngeen koy jox ba nga xam ne xale bi day dem ba dootul am émotion émotion dootu ko libéré wala tey xale bi nekk ci peur boo xamante ni day angoissé tout le temps fitam day tëf tëfi tout le temps day nekk mode alerte ba nga xam ne xale bi boo ko jubee sax dafa gis xale xam ne boo leen jubooy sax pour wax ak nga gis ñu fente wala ñu nekk sur la défense parce que da ni uniquement xale ko tàmm dóor tey man su ma jàkkaarloo xale bu dinaa xam xale bi xale la boo xam ne dañ ko maltraité ou pas ñun selon comportement xale yi buñ ñu tegalee fukki xale di nga xam ban la xale lañ ciy maltraité sans pour autant mu ubbi gémmiñam kon il faut faire très attention au châtiment corporel parce que dafay détruire sa cerveau doom surtout xale bu am deux ans c'est trop cruel xale bu am deux ans dama ne xale sax kenn war ko dóor à man sama li may jàngale li ma gëm te li ma yaree samay doom mooy xale kenn di nit bu parfait amul éducation parfait ça n'existe pas on doit accepter que nous sommes des êtres humains mënuñu parfait yow parfaitoo man parfaituma te sa doom sama doom duñu parfait mooy loolu il faut que ñu accepter que ñu ancré que ñun waajur suñu cerveau mooy sa doom ni nga bëgg mu mel ko nekk xale boo xam day judd rek màgg discipliné du jooy du def lii mais ça n'existe pas xale bi dafay juddu màgg jàng dafay erreur nga di ko accepter di tolérant ak moom di waxtaan ak moom di ko gindi di ko orienter ba mu nekk nit bi nga xam nit boobu la war a doon après nag le reste yow li la war mooy sa responsabilité bi la yàlla sant def nga ko bu màggee nit ku nekk yaa yàlla sa bopp ndax man samay waajur bi ñu ma yore ba ma toll li ma toll bi ma màggee li ma ci neexul jëm naa ko dindi li ma ci naqari euh, jëm naa ko dindi aussi j'ai acquéri d'autres choses yoo xamante ni pour dolli ko sama éducation pour mun a parfaire sama dund la kon waajur yi lu ñu am lañ lay jox nekkuñ fi pour blâmer benn waajur mais waajur liñ ko joxoon moom la la jox mais yow jamono technologie lañ nekk jamono jàng lañu nekk jamono ouverture lañ nekk ku nekk tey li nga xam ne say waajur joxoon nañ la ko bu amee loo xamante ni ça ne da nga koy dindi sànni ko nga jël li nga xam ne mooy li baax nga jàng xam ni éducation doom tey dañ koy jàng xale bi nga am pédagogie yar pédagogie la yar relation la mais yar du rek xale bi tere naa ko une chose une parce que dañ fi nekk pour di tere ak pour di jàngalaate dañ fi nekk pour di tere ak di jàngalaate tey di nga toog benn xale damay fàttali sama dëkkandoo bi ma dëkkal des fois day génn indi ma doom bu am deux ans ne ma téyel ma ko xale bi su ma ko am na bataa boo xamante ni fii sama <laughs> sama sama bibliothèque bi dafa def ay livre xale bi xool day jékki-jékki yoon yoon yoon xool ma suma xoolee daa di jël benn livre xëcc teg ma xool ko mu ubbi bu ubbee rek bëgg bëgg kii page man ah ah ah bu ko defee mu daa di reetaan daal di tegaat ma di ko tegaat ku mu teg ko bu ko tegee cinq minutes xoolaat ma xale bi dina répété geste boobu mille fois <laughs> mu jig dama ko naan kaay te su ma ko nee li ngay laal xam nga ni war ko laal mu daan ne nii su ma ko nee léegi lu tax nga koy laal mu daal ne ma non dootuma ko laalaat gis nga su ma ko tegaatee cinq minutes heure bu ko yaay ji wàccee wee ci kër gi tëpp ci bataan boobu la jëm parce que bataan boobu moo ko attiré parce que xam na ni bataan boobu laay bañ mu laal ko léegi xale boobu tey bu fekkente ni tout temps yaa ngi continuer di ko tere loolu tout temps day ko def en ce moment bu ma ko gisee mu ñëw damay ramas samay livre aj ko ci kaw bu ko defee day ñëw di xool livre di ko mën a jot bu ko defee ma ne ko ba léegi gis nga ne livre yi mënoo koo jot c'est simple mais tey xale bu am deux ans je ne pas comprendre nit trois ans quatre ans cinq ans six ans dafay jàng et que nañu moytu di def suñu doom yi ay monstre yu amul empathie yu amul affection yu amul yërmande ba nga gis ne tey da ngay yar say doom nga di leen dóor ba ñu màgg di dóorante seen biir ay xale yu ndaw di xeex seen biir daggalante saagane seen biir rayante seen biir mën nañoo juboo parce que yow leen doon dóor bu ñu màggee ñoom tamit seen communication dóorante rek la ak saagante parce que donc il faut que loolu tamit ñu bàyyi ko xel waaw gis naa ne direct bi gudd na waaw def nañu presque une heure quarante euh, laa dañuy yem fii di wax ni ngeen partagé ko ñu seetaanoon commencement bi ñu seetaan commencement bi parce que xam naa dina am solo et que bu ñu yàlla may quelque du temps dinañ essayer gën a def certaines choses sur l' éducation des enfants waaw aussi ñu comprendre ni éducation il faut que ñu xam ni dañ koy jàng comme dañ koy jàng kon il faut que ñun suñu bopp ñu auto formé wu ñu formé wu pour doon des personnes meilleures génne suñu affection suñu empathie suñu émotion xale yi ñu jàpp xoolee leen comme ay nit xam ne dañu am xol comme ñun tey ce sont des êtres fragiles très fragiles très vulnérables très vulnérables même xale dafa dafa dafa dafa sensible xale dafa émotionnel donc bu ñu jëlee xale yi bëgg leen yar ak dureté bëgg leen yar ak euh, commandement obligé dañ leen di damm dañ leen di yàq dañ leen di yàq. waaw nañu moytu briser suñu doom yi ñu jox leen humanité jox leen affection jox leen gentillesse te gis ni tubaab yi gënee wuñu dara ay doomu aadama ñu comme ñun ndax tey bu ñu royee suñu yonent bu tedd bi xanaa ko dañ naan yonent bi tubaab la ndax yonent bi musul dóor xale te loolu la ñu sant te tey képp kuy jàngi éducation islamique da ngay xam ne dóor moom c'est banni c'est banni kenn islam nanguwul ñuy dóor xale kon tey boo gisee ñoo xam ne tey soi-disant dañuy jàngale alxuraan au nom de alxuraan ñuy dóor xale kooku mooy jàngam dëgëru kooku jàngul lu yonent bi saa salaam doon yaree ay doomam tey bu fekkee dañuy roy yonent bi saa salaam dañuy bànniir li nga xam ne mooy éducation corp châtiment ak humiliation ak saaga ak yu xas ci suñu éducation dañ ko ci dindi parce que bokkul ci suñu éducation xale pour nga def ko nit laa wax nit mu nite danga koy jox ay jukko nit xale dangay wax ak moom ndànk respecté ko wan ko ndànk respecté wan ko ne danga ko bëgg ba nga xam ne xale bi tey bu génnee ci mbedd mi bu ko keneen bëggul il s'en fiche parce que de toutes sama yaay bëgg na ma ba gëmeewu ma sama yaay man maay nooyu baqeem sama papa daf ma bëgg tey nga gis di leen dóor di leen dóor di leen dóor xale bu jigéen bu màggee am jëkkër mu koy ma wax je tey la plupart ci jigéen ñi li tax seen sëy di brisé parce que figure masculine bi nga xam ni moo référé l'homme figure masculine bi ñu njëkk a xam góor bi ñu njëkk a xam seen àddina daf leen tas seen yaakaar daf leen doon dóor daf leen doon xas daf leen doon violenté muy seen papa. amul ak moom relation la plupart des femmes sénégalaises amuñu relation yu baax ak seen papa la plupart laa wax benn benn nga ci seet quelque exceptionnel ñu naan ah seen papa moom mosuma dóor dafa gis ko kon góor ñi nañu xam ni tey sa doom. ni nga koy éduquer mooy affection dóor du la jox mukk li nga bëgg xale boo ko dóoree ba mu màgg soit dafay rébélé wu soit mu nekk xale boo xam ne dafay effacé wu du am ak yow benn relation tey ba ñu nekk ak sa doom ci biir kër la romb nii bu la nuyoo pare na ci yow xamaloo ko dara xamalu ko neex xamalu ko naqari xamoo ay xartam xamaloo ko dara yëg wala nga jël sa doom bu jigéen mu nekk ci kër gi nga naan ah moom de portable am rek aw maag moom de xamalu ma ko dara moom de xamalu ma ko lii parce que xale bi bëggul am ak yow relation ndax affection ba dafa yàqu amul relation sa doom boo ko defee muy sa xarit wallaahi dina la ñame lu ko daal ci mbedd mi balaa kenn du ko xamal yow lay xamal bu demoon tey ba sëy bu amee problème balaa mu koy wax ak kenn ci yow lay ñëw parce que xam nga déglu xam nga rationalise ko te doo ko xas te doo ko jugé te doo ko euh, yokkal problème mais tey bu fekkente ne yow sa doom bu la nee benn nga yokkal ko problème amplifié ko tiital ko xas ko jugé ko lu tax mu ñëw ci yow xanaa man mii di coach bi da ngeen di ñëw ci man fay ma seen xaalis pour ma coacher leen pourtant teewul dama leen di seen bopp ngeen ñeme ma mën ma sañ a wax lépp loo xam ne sañoo ko wax sa yaay bi la jur lan moo tax lan mooy différence bi intelligence émotionnelle intelligence émotionnelle mooy lan mooy nit ki comprendre ko nit dafa soxla nga comprendre ko nga déglu ko nga xam li muy wax kenn wala nga d'accord ak moom ci li mu wax mais même boo d'accordul ak moom y a une manière de faire y a une manière de l'écouter y a une manière de interagir mais tey munoo jël sa doom tey mu dem sax ba sëy di ragal di woo sa yaay boo amee da ngay ragal woo sa yaay sama yëg problème parce que ii sama yaay bu ko yëgee daf ma naan waaw man lii laa la sant man lii di nangam man c'est c'est pas ça tey nekk bi nga nekk yaay mooy da nekk fi pour couver da nga nekk fi pour uuf da nga nekk pour dalal pour dëfal pour comprendre pour aimer pour accepter pour être tolérante aussi doo minitaire doo soldat demoo demoo armée demoo xeex kon nañu dal nañu dal nañu bëgg suñu doom yi nañ leen jàngal mbëggeel muy góor ñi muy jigéen ñi muy papa yi muy yaay yi papa yi aussi nañu jege seen doom yi nañu jege seen jabar yi ñu jéem aussi am co am cohérence ci éducation bi bañ di tere sa doom lii te bu jógee fekk la ci ñu déggoo ci éducation bi tey sa jabar bu la nee lii sama doom bëgg mu mu def ko lu tax ngay bàyyi ba sa jabar dem nga naan ko waaw yow jigéen nga rek man maay sa kilifa euh, xale bi na def lii par force doom ji yéen ñaar ko bokk jur te moom moo ko ëmb juróom-ñeenti weer nàmpal am nga kon déggoo leen ci ndax bu dee papa day wax lii yaay wax lii ngeen def seen doom naa fekk ngeen jàngal ko manipuler jàngal ko bu kii d'accord mu dem manipuler kee kon yéen ko formé ci ay fen formé ko ci ay manipulation formé ko ci mu ñàkk dëggu wane kanam bii ak wane kanam bee kon bu ngeen bëggee defar nit bu honnête nit bu authentique xale bi nga xamal ko ni sañ ngaa nekk ki nga doon nit bu noppi nga nii la la yàlla bindee accepter sa bopp am nga valeur baax nga tu es introverti et que xamal sa bopp nga xam ni ñi gën a bari wax gënuñu la nit ki tamit bu bëree wax nature am la may ko muy exprimer wu comprendre ko accepter l'intelligence am bu ko jugé dafa dëgër bopp xale bu soxlaa explication dafa am droit nga expliquer ko kon bu ko jàppee koo xam ne bu waxee noppil tëjal sa gémmiñ da nga mën a yàq da bëri wax jàll ma fee sonal nga ma fatt nga ma kon yàq fi indi kon tax nga jur ko demande toi tax nga jur ko yow bi nga ko juree ci nga moomatul sa bopp di bi nga ko juree ci nga nga leen di liggéeyal ba ñu màgg ngay bu ñu màggee dem demal seen bopp loolu la yàlla dogal yaa ko choisir tu as daa de te marier d'avoir des enfants assume tes tes responsabilités ñu arrêté xale yi bu ñu baaxuñu ne waaw xale yi léegi baaxuñu xale yi léegi neexuñoo yar xale yi léegi dañoo bon yow tee ngaa tourné waat flèche bi ci yow ndax yow loo jiñ xale yi ci yow la jóge ndax yaa leen formé ndax tey bu ñu joxee mbuus boo xam ne deful dara mbuus bi jekk jékki fees dell ak lu bon nga bëgg a xas mbuus bi ku ko ci def du yow xale bi c'est la même chose ah yàlla bi mu la bi dafa set wecc amul benn bàkkaar xamul luy bon bu bonee kon xamal yow yaa bon ndax yaa ko ci kon nañu delluwaat am sensibilité accepter suñu ay erreur accepter que motuñu accepter li nga xam mooy suñu ay défaut ñu jéem a toog ak suñu njaboot gi di waxtaan ak ñoom ah maman de def na erreur yu bëri maman da leen leen dóor di leen dul ndakate dóor sa doom baaxul de xam naa ne dóor yi ma leen dóor yàgg naa leen gaañ xam naa ne yàgg naa leen frustré maa ngi leen di jéggalu ndax kat yaay day juum papa day juum ndax ñun ay nit kese lañ ñu ay ay xut bu samaan bu ñu ay yàlla yu ndaw kon bu ngeen amee loo xamante ni dañ ko war waxtaane ko waxtaane jegeloo sa sa bopp say doom waaye yow say doom lu ñu wax loo wax waaw la ñu war a wax bu ñu waxee waaw ba ca mbedd mi ñu def leneen parce que doomu aadama nag malheureusement yàlla daf ko doté de raison de mun nga koy wax mu naan waaw waaw waaw tey waaye un di nga wax waaw mu génn def déet di làqatu nekk beneen nit yor double ci double vie di dund beneen vie nit naan la sa doom mu ngi def lii wala mu ngi def li ngay rey sa bopp parce que yaa ko mu doon ki mu war a doon parce que da ko bëgg a def nii yàlla ne la nii lay kon accepter sa doom nga orienté ko te éducation base bi moo fondamental xale boo defee ci moom li nga war a def ci moom de zéro jusqu'à dix ans bu amee dix huit ans wala vingt ans du la jaaxal du la të parce que base bi lépp après lay feeñ ndax garab boo ko saxee suul ko def ci racine yi kaani boo ko suulee bu génnee kaani lay doon di da bëgg mu nekk pataas wala mu nekk leneen te yow kaani nga jëmbat kon boo jëmbatee sa doom violence mu màgg nekk ado ado bu violent nekk ado bu bu rebelle nekk ado bu bu bu doy waar après ngay laajte le comment te yow yaa ko def ci moom kon bu ñu laaj lu ñu joxewul kat nañu nañu nañu nañu sincère ñu honnête ndax nit da ngay sincère ci li ngay def sincère ci li ngay joxe sincère ci li ngay wax kon ñu ngi leen di yam ak yéen fii di leen wax salaamaaleykum rahmatulah ba beneen incha kon daal kontaan nañu lool si live bi waaw nañ ko partagé bu beneen yoon allah ñu jéem a xool yeneen sujet bu dee am ngeen ay sujet yéen bëgg ñu waxtaane ko ñu daal di ci waxtaan partagé ko essentiel.